bu ko fàtte salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi leen di ziar sama gaay yi maa ngi leen di ziar leen di nuyu lu bare bari di xaar sama gaay yi yegg leen di nuyu lu bare bari mu <laughs> Moustapha Babou defe naa waaw euh, maa ngi leen di ziar Damel Fall Jacob ndeysaan maa ngi lay ziar lu bare bari ah fidèle au euh, donc voilà Damel Fall voilà gis naa cette vidéo au bi mais euh, malheureusement j'ai pas le numéro du du monsieur xam dans la semaine dina ko lijjanti j'avais déjà calé mes invités mais euh, mu nek xibar bu doy war euh naa mi ngi tuddu Serigne euh, Serigne Mbaye Guèye defe mom moom tuddu euh mom moy chef d'entreprise bobu nga xamante ni euh nek ci mbirum détachée, euh mu amone comptable comptable bi ndaysan sàcc ko mom ak soxnam voilà à <laughs> euh, ak it ngeen donc comptable bi complot euh, d'après li wax ak euh, kenn ci soxnam yi la baroon sek mang les ñu ko mu perte audit mu un milliard ndekete comptable bi dafa y won yeneen ñaari société Euh, tey moom bu jaayee lii cent francs euh, comptable bi jaay ko jaayee ko 50 francs wala quinze francs mu nekk lu doy waar euh, gis ngeen ne loolu moo tax ba Sénégalais yi bëri surtout ñun ñi Sénégalais yi nekk diaspora ñu bëri dañuy hésiter sax pour di investir Sénégal Euh, ndaxte ñi la gën a jege sa ñoo la koy def booy booy xool ndaxte kenn ci mi ñoo complot ak i comptable mu nekk lu doy waar mu nekk histoire bu triste et j'espère que vraiment euh, gars duñ ko bàyyee noonu mu naxasaay noonu gars dinañ ko euh, ndax au moins chef d'entreprise la am ñi nga xamante ne mu ngi leen di fay am ñu ñu yeewu foofu di liggéey jot salaire am seen te yàlla ak chef la Sénégal loolu moo tax kenn wóolutul kenn doy son histoire nous a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup touché gars yi Momar Ndiaye <laughs> Momar mon Momar les médias ont changé wa gay donc euh, bala may dougal sommaire bi ba en attendant sama wa di euh, di euh, wa wa Sweden wa Suède di mang Diallo j'adore ce pays wa Moussa Gueye maa lay ziar Aliou Fati mang zo soldat africain mang lay ziar bu wa de euh, donc euh, ba mu ci euh, mu def ay investigation nek ko dal rassembler toutes les preuves nécessaires jabaram ci bopom dafa comptable ko numéro téléphone téléphone numéro téléphone voilà donc finalement mom dafa dem ci section de recherche jox preuve yépp comptable bi ñu téye ko jaba bañ ko à vue après également ñu libéré ko Sénégal on sait pas alors que ont toutes les preuves euh, mom nak dafa wax presse bi bëggul vraiment tamit euh, parce que Sénégal affaire de bras ci ginnaaw soxnaam ak comptable ko def jëf ju ñaaw am ñu nekk ci leen Sénégal loolu mooy Sénégal ku mu woote ku mu wax di waxtaan ak di ko wax ci problème am ah, nga ne di nga ci di nga ko jàppale waaye dootoo Sénégal ñun ñi dañ koo dund ñeneen dund Sénégal. voilà donc gars yi en attendant sama gars yi gars yi ku dugg rek partagé ku dugg partagé ñoom Abdoulaye Ka Abdoulaye Ka ñu ngi leen di ziar ku euh, du ñu def luddul euh, deglu len ben ben audio euh mu nek nak man luma xawa choqué il s'agit de l'ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur euh, muy Aminata Lô donc ngeen xamné ci jamonoy Ablaye Wade mo doon suñu ministre ministre diaspora bi les Sénégalais de l'extérieur jamono yoy di luñ ko mëna luñ ko mëna waxal moy jamono yoy vraiment de manière objective euh, ci ministère ba en tout cas ñun diaspora bu ñu soxla woon dara wala ay événement wala yu non dañuy taxaw wax dëgg neex yàlla ak directeur de cabinet yeeg gaay dañ ci taxaw voilà dañ ci taxaw bu baaxa baaxa baaxa baax euh man mosuma gisanteeg moom mom waye amna événement bu mag bu ñu amalon Belgique bu ngeen fàttalikoo première fois Pape Diouf ñew fofu ci Belgique ak artisan euh euh, euh wa Sénégal ñi nga xam dañuy liggéey ci walu yett et tout ñu am statut yo xamantene ne statuette ak yu demee non indi ko fofu Belgique jënd ci mu nekk un franc succès euh avait également des des agents de du ministère ñëw également euh, ci ci ci événement ba représenté état du Sénégal mu nekkoon lu am solo te euh, c'était grâce à elle xoolul voilà matière du politique wala yu des noonu déedéet daf ko def te mosuñu gisante sax man ak voilà donc dafa dafa faire des circuit normal donc defe naa ni loolu lañ ko war a mun a donc euh, dafa xaacu nag ci couvre-feu bi gis nañ couvre-feu bi sonal na sonal na ñëpp muy ministre ak ancien muy ancien ministre ku munti doon dafa mel Sénégal son nañu lool kon ma tegal leen seen euh, jëflante bi mu jëflante ak i takk der yi dañ ko arrêté ci couvre-feu bi ah euh, xaacu na ma bàyyi leen ngeen déglu ko en attendant sama gars yi euh, ngeen ñu ñëw nag ci maanaam sommaire bi lépp li nga xam ne war nañ ko waxtaanee tey. que y a même pas de maladie pour voler des milliards. ça n'a fait caution 3000 francs, comment ça fait Il y' a pas de caution. Ce voleur-là. 3000 francs là Non, il n'y a pas de caution. Caution de 3000 francs, moi, je l'ai payé. On m'a pris. Je, je ne reculerai pas. D'accord, un bien, maintenant bàyyi ba suba demain tu me convoques dama ubbi ñu dem temps bi dem boo ma fay ma fay léegi francs ça c'est quoi la constitution c'est combien toogal daal xaar ni yéen man maa leen di xaar yéen non ki dañ ko yónni kenn yónni wu ko dañ koy yónni waaw man faale wu Macky Sall Macky Sall dugal ki ki waa maanaam dugal waaye bàyyi mo way dugal fay caution trois francs non man amul caution caution bi francs je te le jure billahi wal kitaabi demain vous me verrez ici man ragaluma dara Waouh, ce Macky Sall, ce voleur de merde. Cet imbécile. Ah, Mais je le dit. Mako wax man. Enregistrer mes gars, wan gars, nous dégueu. C'est un imbécile. Waouh, vous nous traînez dans la boue. T'as de l'énergie au 20 heures. Hier ou lundi 6 h du matin. Mais pourquoi? Sacré 500 milliards le bouga. Sacré 100 milliards. Il a volé les 1 milliard, les 1 million de milliards, les 500 milliards. Vous nous vilipendez, vous nous traînez dans la boue. Mamita. je m'en fous. vous êtes ancien ministre. billahi wal kitaab tey ngeen may rey ci kaf. non je dis vous êtes ancien ministre. taalal oto bi. cinq fois. dinaa brisé gris bi di ngeen ma rey. taalal oto bi. non écoute-moi bien écoute-moi bien. je me laisserai pas faire. kay taal oto bi. je ne me laisserai pas faire. di ngeen bëgg da ngeen bëgg scandale di ngeen am suba waaw. n'y a pas à négocier. Si ngeen ma yóbbu prison wala ma génn prise de parole. Il n'y a pas à négocier. Vous allez me mettre dans la grille. Waaw. Waaw. Vous, ancienne ministre au Sénégal, vous, vous êtes de la merde. Vous ne nous respectez pas. Moi, je paye 3 000 francs. Vous ne nous respectez pas. Moi, je paye 3 000 francs. Ñoo gën Macky Sall mi ngeen ñun li ñu def ci réew mi Macky Sall def ko. moi je paie 3000 francs. waaw. eh mais c'est pas gentil. président Macky allez vous faire foutre. j'en ai rien à foutre de Macky Sall. Macky Sall Macky allez se faire foutre. waaye yow. yéen ba ma man je ne me laisserai pas faire damay jàmmaarloo ak yéen. lii booy nag. yow. Voilà, donc c'est l'ancienne ministre euh, Aminata Lô qui euh, ak i parce que dañu ko été euh, euh, ci couvre-feu bi defe naa su ma comprendre waroon na joxe 3 3000 francs CFA voilà on dit que les Sénégalais ñun dañoo émotif mais ci qui est wax bëgg nañ nous avons duñ ci sori euh, mais gis nañ ne tout le monde l'a partagé site internet yi ñëpp a ngi ci wax euh tax ñu jëkkal leen ko mais bu ngeen xolé quand elle parle on sent la colère dans euh, chez cette chez cette dame ancienne ministre le mais dafa melni ni elle a beaucoup dafa garder lu mu garder dafa bari donc elle a lepp le yulli lepp le yulli donc luñ ci mëna dégg mom moy euh voilà donc. Euh, elle a beaucoup fait apparemment pour le Sénégal euh, en tant que peut-être opposante parce que euh, PDS n'est au pouvoir Moi, na ci pas si ma xawa dire parce que dégguñu ko ci lenn depuis PDS perd de pouvoir bi ba elle est pas au devant de la scène en fait je veux dire buñ ko déggee balaa Il y a la xam donc voilà mu mel mu mel ci am tane ba ngi ci opposition pure et dure voilà c'est un trop plein j'ai l'impression que c'est un trop plein chez cette dame là les lu mu xalaat daal wax na en général ñun ñii nga xamante ne sax duñu politicien ni rien da ngay am as bu mais da ngay bañ sax di euh, ñëpp di la xamal wala yu demee noonu mais elle s'est lâchée elle s'est carrément lâchée bon euh, comme on n'est pas en télévision wala yu demee donc nous ko monter pour def euh, pour yenn mots yi ma ma ma dindi ko donc moi t'as moi leen ko voilà mais je pense que c'est pas trop méchant quand elle dit il faut aller voilà à que tel que qu'il aille se faire bon voilà euh, c'est pas y saga saaga grave grave garaaw yi motax voilà te mënu monde def euh, mënuma voilà j'ai pas un matériel pour mun ko pour mun ko bippé en fait voilà pour mun a yenn yenn son yi donc mi ngi noonu daal doy na waar dinañ nag euh, xool euh, l'évolution évolution euh information bi ni mel euh ndax tak der yi dañ ko violenter wala dafa am dañ ko ñàkkal kersa lutax ba mu ba mu ba mu xatu ni bëgg nañ xam voilà bëgg nañ xam mais jappalé né dal l'ancien ministre des affaires étrangères des Sénégal extérieur Aminata loudia euh, elle a été arrêtée ak mbirum couvre-feu bi voilà donc mu nek lu doy waar donc gars yi euh, wax le ma est-ce que live bi ngeen di gis bu baax parce que nenañu mati Matissa coupe parfois le live wax le ma est-ce que euh, image yi euh, ki na na image stable na ou pas parce que gis nañ ne semaine dernière dimanche passé loolu moo taxoon xawoon na tout le live bi parce que da doon couper et tout voilà bu fekkee ni image bi baax na ngeen wax ma voilà Aminata Bellamy nee na Matissa cette dame travaille depuis 2012 pour Macky Sall euh, pour Macky Sall, c'est qu'elle a été déçue pour Macky Sall, c'est qui justifie sa colère. D'accord. Euh, Qu'a fait cette dame, c'est important pour le Sénégal. Euh, voilà, nous, euh, Pléa Ibrahim Wa, nous, nous avons dit que médias et tout. Donc, euh, comme expliqué, nous avons eu beaucoup de choses diaspora et tout. Mais nous avons ben, euh, je veux dire, au niveau de ses collaborateurs, comme les gens qui il y a ministère, il y a un ministère, pas, pas ministère. Euh, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, je vous donne un exemple. Euh, ñun ñi maa ngi ko doon waxtaan ak sama ak ak ak kenn euh, ku ma war a liggéeyal euh, kero il était vraiment surpris ñu bëri yëguñu ko mais ci mbirum libi bi sama xarit ya nekk foofu ca libi ñoom fa taxawal am on a libéré deux sénégalais yi nga xamante ne ni ñu ngi woon ci prison libyenne yi ndax xam nga ne jamonoy libi bi takkar naa si woon na ay ay 2017 tout le monde en parlait ñu am suñu ñaari naataango yu nga xamante ne nii ay sénégalais lañu seen i waajur amuñu doole ñu leen di laaj ay presque 1000 euros pour mun leen a génne ci prison yi euh, mais euh, gannaaw ñuma fa teewal ñu nekk di négocier di négocier ba libérer fa deux personnes jamono yooyu euh, ñun peut-être carte d'adresse bu ñu am peut-être liggéey bu ñu liggéey ci diaspora bi ak nu ñu xamee terrain bi ak nañu nekkal ci yenn dëkk yi ñu contacter yenn ministres yi contacter nañu même directeur des Sénégal de l'extérieur parce que amna ay problème yu urgent yi fa yu fa nekkoon yi Sénégalais nekk foofu diko ko mu metti lool nga war leen ko yeggee ñom directement mais dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy bloqué porte yi euh duñu bëgg wax ak yow parce que jamono yooyu luñu wax moy mati opposante la voilà mati opposante la donc duñu nangu duñu nangu waxtaan ak yow pour que surtout nak ñi nga xamantene ne ñoo nekk fofu ci libi problème ñi ñu am ko ñu mun koo saafara ndax ñu dañu jaar ci yow ndax yow lañu xam dañuy seetaan sa live et tout cela donc yu mel noonu boo ko da ngay gis ni am na ñoo xam ne dañuy am yenn poste mais dañ koy politiser en fait dafa mel ni nekkuñ fa di liggéeyal pour état bu Sénégal dafa mel ni nekkuñ fa di liggéeyal pour sénégalais yi dafa mel ni dañ fa nekkal pour benn parti donc voilà mais du ñëpp nak parce que gis nañ fi Amadou Ba ci euh, mbirum Covid bi waccé nañ ko mais dañu wax deug rek vraiment bu problème amé ci diaspora bi muy Brésil li feneen nak feneen il est en contact direct ak tamit ak tamit les Sénégalais de l'extérieur té defe naa loolu aussi mom la mom lañuy la xaar ci euh, ci vraiment ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñoo nekk euh, au cœur au cœur de l'État voilà donc bu ngeen di l'iguel Sénégal foog nit ñi aussi ñu gis na da ngeen di liggéeyal Sénégal jël parti politique teg ko de côté liggéey pour pour pour pour Sénégal voilà ki nee elle est du camp du président Macky Sall donc certainement kon xamna kon elle a été kon déçue euh, par euh, le pouvoir voilà, par euh, le président Macky Sall donc gars yi ñu ñëw nak ci sommaire bi gars yi partagé qui l'a fait sortir voilà qui a enregistré l'audio qui l'a fait sortir mais si biir audio bi dégg ngeen mu vous bu donc mon gis na ne enregistré mon mon gis na voilà donc nous allons ma est-ce que image donc image l'air, est-ce que image yi Voilà. donc gars le sommaire et lu ñu la euh, dinañu ñëw ci li nga xamante ni ñu ndar keppe nag wax ji moom mooy coowal jaari sow bi ñu bëri ndeysaan dañoo sonn ci coow li mbir mi comme genre série série la en fait épisode épisode bu ñëw rek beneen ñëw épisode bu ñëw rek beneen ñëw mais semaine bi vraiment euh, dafa am ko xamante ne dafa nekk au devant de l'actualité euh, ñu ñu ñu invité ko un peu partout mu def ay révélation yu graaw ci mbirum caa jaari jaari sow bi ndaxte gis ngeen ne jaari sow gars yi ñu bëri sénégalais yi mun nañ ne 80 pour cent yi dañ koo mere amna sax ñi nga xamante ne ni yenn humoristes sax def nañ ci ay sketch xam nga donc euh, waju bax ci panal tudd waju bax gis naa benn vidéo et tout en tout cas sénégalais yu bari dañ koo mere euh, surtout nak liñu wax né lettre bi nga xamné né nañu bind nako yonné nako son parrain le ministre Serigne Mbaye Cham amna ay mots yo xamante dafa dafa dafa dafa dafa dafa choqué yenn sénégalais ils sont déçus voilà donc ñu bari également ci réseaux sociaux yi ñi ngi acharné wu ou bien on peut ne pas dire acharné mais mère nañ ko te wane nañ ko voilà que voilà def ñoo yepp wala yu demee voilà amna yu bari da yo xamante mënu ma ci ñew mais nit ñi mere nañ ko dem nañ ba ci bir aussi amna aussi ay accusations voilà ñu bari dem nañu ba naan waa est-ce que dafa ëmb ak yu démé noonu euh, voilà wax ji bari na euh ba wax ji baree ki nga xamante ni

mom la serigne mbay cham bolé daal di ko fësal ci euh, euh, euh, ci réseaux sociaux yi daal di ko génnee de manière publique donc lu samay kàddu kàddu yi dam mbóot la donc ñu ma wat ko jaari sew envoyé wul kenn lettre ay conversation bu mu am ak tamit son parrain Serigne mbay cham la lolu ben la ñaarel bi man ci sama bop waxon nañ ma ni te Mimo ja defoon na également ben live pour pour wax ko ci guddi ga mu xamal ni famille bi lettre boobu ministre bu wax ne contacté na famille bi avant mu koy divulguer nee na yaayam ak tantaam en tout cas les parents proches yëgalu leen ko ci biir nag lañu yëg ne kenn ci tantay jaari sow jëkkër ji moom la ministre bi woo benn ñaareel bi Dame Mbodj dina ko faram fàccee léegi nee na jaari sow c'est une victime ñëpp mere nañ ko ñëpp a ngi wax ci moom euh, ñu ngi acharné wu wax ji doy na waar waaye elle est une victime pourquoi mu nekk victime dama leen koy résumer rek parce que dina ñëw ñu ñu waxtaan ak moom ci li ni mel parce que nee nañ Diary Sow ci boppam euh, ministre bi ci boppam dañoo créer école bi nga xam ne mooy mooy lycée de Diourbel pour se faire voir pour que Macky Sall gën koo ràññee ak tamit ñu bañ koo wàccee xam nga mu nekk euh, ci bonne grâce su Macky Sall le président de la République moom dafa yenn combat wu lycée de Diourbel bi mu nak nag euh, ku mel euh, comme mu est une figure emblématique du lycée pour nous mun a jaay école qui est son sa création et tout et puis aussi nous promouvoir la gente féminine moo nous ñu dit di mettre euh, Diary au devant de la scène Manam maanaam moom mu ko. voilà ñu ne dem ba ci biir sax li nga xam ne moo concours général bi ci mu ne am na beneen xari boo xamante ne defe naa sàmb xari la tudd kooku nga xamante ne moom moo waroon sax nekk à la place de euh, euh, euh, Diary Sow maanaam kooku waroon gañe concours général bi parce que moom ci wàllu mathématique ak science moo ko rawoon mais jaari Sow y avait de des de petites ay manigances ak yu demee noonu ba ñu jël Diary Sow jiital ko ne moom moo gagné te war woon gagné mu ne loolu nag dina yàqal Diary Sow parce que. man man interview on te ne elle veut pas se spécialiser faut veut voilà polyvalente c'est-à-dire qu'elle soit bien excellente en matière scientifique qui mathématiques et et elle veut aussi être excellente en littéraire qui tout ce qui est littéraire mais les gens enfin d'après d'après d'après Dame elle est plus littéraire en fait mon mon cest à que ci wàllu littérature tout ce qui est littéraire littéraire kenn kenn mënu ko kenn mënu ko c'est une génie xam nga mais nag mi ngi góor góorlu ci wàllu mathématique et tout loolu moo tax ba mu ñëwee école bii nga xamante ne mooy lycée euh, bi mu ñëw fii nii fii nii à Paris loolu tax mu am fa problème parce que Samba Xari bii ma nga foofa ca même lycée ba te at kenn dégg ko te amul benn problème loolu lañu wax parce que deuxième année prépa bi fële dëkk affaire bi gën a fësee ndax moom elle est pas scientifique en fait ay mathématiques yooyu doon du forum elle est plus littéraire loolu moo tax ñu mel ni ñoom Samba Khary ak ñoom ñoom dañ ci génn moom nag elle a du mal elle a du mal donc c'est une pression boo xam ne dañ koo teg ci moom. voilà bëgg naa ko ko laaj Bleya Ibrahima nee na Dame Mbodj règle ses comptes avec Serigne Mbaye Thiam lui aussi se sert de cette pauvre petite dinaa ko ko laaj. affaire la ci biir affaire yi moo tax il faut ñu waxtaanee ko affaire la ci biir affaire yi voilà donc affaire la ci affaire on a fait ce qu'il fallait pour qu'elle pour qu'elle réapparaisse en tout cas voilà nous sun déjà ñun sun jaan wàcc Nous ñun def na lu ñu war ba mu apparaître et tout mais daal jàppaleen ne d'après Dame euh, le parrain son parrain euh, Seigne Mbaye Thiam lu jig njàkk mom moy njàkk parce que moom moo teg pression xalé bi moom moo jël xalé bi manam tek ko au devant de la scène manam diko ko voilà et puis aussi pour que président Macky Sall mu gis né il est en train de faire du bon du bon travail

Euh, téye nañ leen arrêté nañ leen ay adolescents lañu donc il y a euh, trois personnes donc ñaar ñoo xamanté am nañu 16 ans kenn ki ki am ñooñu ay américain lañu kenn ki mo amone 14 ans au moment des faits légui il a 15 ans ñi ngi nak tudd aussi une quatrième personne benn femme bu nga xamante ni elle a 23 ans momit arrêté nañ ko ci mbir mi. lan mo tax ñom ñu def li ni mel est-ce que sénégalais yi nek fofu di den wër jamono ji ñuy wax ak yeen ndax xam nañu lan moy motif bi lan moy lan moy mobile crime bi dinañu ko laaj ki nga xam ne mi ngi tudd Papa Dia nek fofu ca euh, euh, ca ca Amérique ñom depuis le début ñom ñoo porter affaire bi ñom ñoo nek ci xex bi pour que vraiment mbir mi mu mun leer Texas dinañu wa Denver dinañ joko ak ñom dinañ ñëw également ci ben histoire bu triste bu nga xamante ni ñi ngi ñaan consul bu nek fële ci New York euh, monsieur Ndaw mu japp ci bu baaxa baaxa baax je sais que il est au courant et que même le président de la République Macky également il est au courant de cette affaire il s'agit ci Ben Ben sénégalais bo xamné il est né en 77 xalé la. ñi ngi ko japp téye nañ ko pour 50 ans dafa nar a prison. 50 ans prison la nar tok. voter Texas dañ ko condamné durant 50 ans ndax lan de dafa dafa auto euh ba paré dafa agressé ben femme maanaam dafa agresser ben ben ben américaine sàcc auto. Lutax nak 50 ans parce que man daf ma jaaxal reyu nit ou quoi ñu parce que c'est un récidiviste donc def nako ñetti yoon donc vol de voiture trois fois il est foofu ca Texas prison bu Texas pour 50 ans voilà donc loolu dinañ ci waxtaan également ak ite wa Texas ku tudd Bamba nga xam mom mokoy jappalé euh xalé bu góor bobu nak nee nañ ma famille yam wax deug neex yalla famille bu baax la jógee feulé ci Sénégal mu nek lu doy waar euh, ma bëggone nak à travers ce ce témoignage également ma lance un appel à tous les Sénégalais yi nga xamante ni da ngeen am seen dom doom bitim wala ba ngeen ñëwé Sénégal da ngeen ba ngeen ñëwee bitim rew da ngeen ñëw ak seen dom wala ñu juddoo fi ngeen gëna def attention ci éducation bi xam nañ bitim réew na lool ndaxte ku dóor sa doom euh, euh, euh, maanaam di nga am problème wala ñu nangu xale bi ci yow gis ngeen li xew fële ca ca ca New York ak it famille malienne boobu xale bu góor boobu nga xamante ne dafa faat yaayam ay bal ci ci bopp parce que tout simplement yaayam dafa bëgg mu génn di liggéey yi ah mosoon na dóor yaayam da yaayam daal di dem daal di dem ci policiers yi wax ko policiers yi noonu policiers yi daal di ne ko euh, nañ def tuuba euh, doom ji boobu du mu bu dëkkati ak yaay ji voilà doom ji nag génn kër ga euh, jour bi ñu waroon atte pour que mu am kii de nu ñu koy waxee ci ci ci ci France ci ci wolof sa à dañuy am benn daan boo xam ne après tribunal bi daan boo xamante ne nii xale bi du amati droit approché wu yaayam donc jour où nga savez dem tribunal yaay ji ak dom ji jour bobu la dom ji ñew soné ci kër ga euh, ba mu ak yaay histoire rek la ray yaay plusieurs balles ci voilà yaay ji demone nañ sax ba dafa am lu ñu ko jox loo xamante ne nii bu gisee doom ji rek bu nar a nekk en danger daf ci appuyer pour que ñu mun koo ñëw jàppale appuyer na ci mais euh, xale bu góor bi donc mujjee na faat yaayam daal di daal di di am aussi ñeneen ñoo xamante ne blessé na leen di daw nag pour pour pour pour pour pour rëcc noonu la ko alkaati yi tëyee. li ci gën a doy waar mooy ba ko alkaati yi tëyee nan la def mu dafa commencé simmi yëre mi di waxtu et tout wane ne comme moom dafa dafa dafa dafa jëkki dafa dof voilà mais famille bi ci boppam ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom euh, ay ay ay tontom ay nijaayam nee nañu xale bi ci boppam dara jotu ko yóbbu nañ ko na éco euh, euh, hôpital psychiatrique mais nee nañ nañ ko yóbbu ca kaso ba na dee ca kaso ba voilà donc munoo rey nit ñu ñëw yoon teg la loxo rek nga commencé ne créer benn affaire de folie voilà loolu nekk na lu doy waar voilà vraiment parents yi ñu gën a def attention ci yaru xale yi kii nga xamante nag moom la ñu tëj 50 ans ca ca Texas moom dafa ñëwoon Amérique pour pour pour ay jàng pour pour jàng c'était un étudiant c'était un étudiant. Qu'est-ce qui s'est passé mon nak il, dit qu'il il est pas coupable. Voilà, il est pas coupable. Mais bon, moy lolo. Et voilà, affaire récidive là. euh doy wa dal. Xalé yi nga xamantene aussi ay xalé lañu ñëw bitim réew tamit luñ leen di soññ moy ñu def très très très attention parce que nekkoo sa réew li nga xamante ni bo nekké kasso Sénégal say famille dinañ mëna xol xool ñu lay jappalé génne la ci lolu du mëna nek nekk ak bitim réew voilà donc dinañ ci ñëw bu ci euh Ibrahima Amar aussi moy ki nga xamante ne fat nañ ko fële ci Brésil sénégalais yi def nañu ben marche manifestation euh, presse brésilienne ñëpp ñëwoon nañu euh, pourquoi parce que Ibrahima Amar mi nga xamné ben brésilien mom moko fat ci salle de billard bu ngeen fatali ko wax ko dimanche passé ba légui ki nga xamné ne fat ba légui ah xamuñu kan la euh xamnañ kan la mais ken japp ko ba ba ba ba ci yalla tay ji kon gis ngeen ne kuddee yow ya perte donc sénégalais ya ngi manifester parce que lu bëgg mom moy ki nga xamné mom faat Ibrahima Amar nañu ko teg ca nañu ko teg ci yoon maanaam ñu daal di ko daan mu nekk ca mu nekk ca kaso ba voilà waa Russie aussi dinañ def tout ba étudiants yi nekk euh, Sénégal yi nekk foofu ca Russie contacté nañ ma ñu mën a dugg également ci live bi euh, parce que ñu ci bari problème mu passeport lañu am comme waa Brésil ni ñu amoon problème mu passeport euh, dañ leen diggoon ni leen commission bi dina ñëw mois de septembre ba léegi gisuñu kenn amna na ñi nga xamante dañu bëgg régulariser seen i dañu wara a jabar ngir mëna nekk situation bu régulière ci dëkk ba ndax Russie dafa metti c'est pas comme yene pays européens yi mais ba légui dara France, dara xewul kenn jàppalewu leen ci lenn mu metti lool ci ñom kon nag waa Russie également dinañu dugg bala may jël nak euh, euh, Dame Mbodj acquitté waa Denver ngeen may ma juste rek ma daal remercier ay nit parce que defena naa waxtaan waxtaan wax ko sama page amna na femme buñu ñu ramatoulay Ramatoulaye Ramatoulaye euh, di femme bobu nga xamné ne daf ko yobbu won fële ci Sénégal en vacances ak ñeenti doomam jëkkër ji daf ko jëf ju ñaaw ndax ba ñu eggee foofu ca Sénégal daf ko nax fexé ba manam jël ay documents de voyage jël également ay documents voyage ay domom jël 3000 euros manam argent de poche am dal di ñibbi si France bayiko Sénégal mom ci bopom sax nak dañ ko tëjoon kasso ba génné ko kasso euh ramatoulay boobu né ñun ñu ngi ci doon dox def nañ ci luñu ñu mën <clears throat> parce que dañ ñoo jox euh, euh, information bi mak ramatoulay mak ramatoulay depuis boobu ba légui depuis presque 2 mois je pense problème bi mom mo doon amna document bo xamantene dañ ko doon laaj ambassade bu nek France moko ko doon laaj pour que xalé yi ñu mëna and ak mom mëna mëna ñëw fi ci fi ci France te jëkkër ji bu sañoon du mësa duggu dugg biir biir France mom ak mom moom moom moom ak i donc noonu ma di contacter association des juristes du Sénégal xamna ni damay bàyyi Ramatoulaye ndax tay ci fajar gi la ñëw la yegg si fii pare alhamdulilah damay bàyyi mu noppale ko bu dëgg défé dimanche prochain su nango mu duggu ci euh, live bi ngir bu mëna yé également femme yi nga xamantene ay immigré lañ dañuy am problème ak seen jëkkeur jëkkër seen i que dañ leen di nax buñ buñ leen yóbboo Sénégal vacante ñi nangu seeni i passeport ak seeni kayit bàyyi leen ca réew ma ñibbisi donc euh, Ramatoulaye Alhamdulillah, duggaat na bir bir bir France xex nañ xex bi te ki ma ci jappalé du kenn ku dul ñoom Ami Sakho di association des juristes du Sénégal mbir mi metto na lool c'était trop stressant femme bi dama ko yërëmoon comme pas possible. de remercier également ambassade de France ba nek fofu ca Sénégal lool motax ñun dañuy soy dañuy dañuy dañuy demander suñu ambassade yi nek ci bitim réew ambassade Sénégal yi nek bitim réew nañu jappalé sénégalais yi parce que femme bi ba mu démé ambassade France ba nek fofu ca Sénégal dañ ko taxaw. dañoo am yërmande bañ ma joxee numéro téléphone euh, assistance sociale bi ak ki war a jël kaam ba ma ko oowee daf ma ne sans problème na ñëw lundi maa ngi ko oo vendredi mu ne ma na ñëw lundi sans problème sans protocole ni rien ba ma oowee Ramatulaay ne ko nee nañ nga ñëw lundi nekkata Ramatulaay jaaxle rek mi ngi woon buntu ambassade mu ne maa ngi ni buntu ambassade aw ma rendez-vous mais mënutuma toog mënuma toog di xaar noonu dafa woo femme bi ne ko ne ko Mati jox na ma sa euh, sa numéro dinaa ñëw lundi femme bi ne ko yaa ngi ci buntu bi mu ne waaw mu ne ko yéegal noonu la yéegee ba ñu mu joxe ay dossiers et tout mu am document bo xamné mom moom la ko ambassade don laaj noonu nak man ñi ci jappalé mo ñi nga xamante tribunal ba nek Dakar wa association des juristes du Sénégal jappalé ñu ci ba mu am document bi ni mel franchement même billet d'avion parce que femme bi amatu won deureum amatu lu mu jënd billet d'avion ni rien ambassade bi ñoko ko jëndal billet d'avion ñoo lijjanti ay doomam ñoo fexé ba mu yegg si fii Paris kon remercie ngi remercier ambassade de France qui est foofu Sénégal association des juristes du Sénégal ak tamit association bi France ñu est ci xeex bi Ramatoulaye également ak qui doomam nañ ci en ak Paris. kon les gars yi du def ce que jël fais à Denver je may jël nag ki nga xamante donc ñoom Bamba voilà envoie le lien bon je peux pas hmm. ñu jël nag Denver. d'un ñu jël Dambo. Dambo, Dame Mbodj nous ko jël à et nañu may 5 10 minutes Allô. Allô. Wa papa ja maa ngi lay lay ziar. Mati maa ngi lay delloo ziar di la nuyu. voilà di nuyu aussi wa wa Denver wa bu baakha baakha baakh wa États-Unis de manière générale Euh bayila nga nuyoog mbok yi. Euh, voilà pour nous ñëw rapidement rek ci li nga xamné mom mo xew euh moy arrestation les meurtriers donc de ce crime crapuleux euh, euh, survenu à Denver. Mmh. waaw Maty maa ngi lay euh, gërëm di la sant ci dalal bi di nuyu euh, sa auditeurs yi ak ñuy déglu ci waxtaan bi mm-hmm. euh, di ziar nit ñi di ñaanal ñëpp jàmm ci mbas bi ñu tiim indi taataan say laaj indi ci ay tontu ak leeral. voilà donc li ñu bëggoon xam mooy euh, gis na ne jàpp nañu euh, assassin ñi nga xam ne ñoo def jëf ju ñaaw jooju ah loolu loolu alkaati yi wax ne amul benn euh, doute ah. ñoom ñoo def li ni mel mais ay xale lañu donc y a trois personnes kenn ki 15 ans ñeneen ñi 16 ans ak benn femme bu am 23 ans ay américain lañu nag li ma jaaxal mooy ban rapport la am cest à que est-ce que ñoom dañu xamante woon ak it famille Ndiol ou pas parce que ay américain lañu te defe naa dëkkuñu bokkuñu même localité. waaw euh, Maty di wax rek ni euh, investigation bi nag mi ngi nekk toujours en cours euh, waaw effectivement jàpp nañu ñetti xale yi kenn ki période bi ñuy def crime bi mi ngi amoon quatorze ans mois d'août mi ngi amoon quatorze ans léegi am na quinze ans ñeneen ñaar ñi ñi ngi am seize ans ñoom ñett ay xale yu góor lañu mhm. ñaar ñi ay tubaab lañu américain Euh, kenn ki euh, origine euh, asiatique ou Asie le il a ci kër yi di di arrêté a ku sœur la ci ñaar qui am 16 ans yi qui am 23 ans mais mom, ci l'année lañ ko ci mbiru drogue ak possession illégale arme à feu donc moom ci loolu lañ ko jàppee le temps ñuy xool nag ba xam am na leneen lum mu loo xam ni moom euh, dox na ko ci crime bi euh, waaye li nga xam ni moom la ñu police Denver wax ak détective yi euh, ñoom wóor na leen ni crime bi ñi ko def amuñu benn lien ak famille Diol maanaam xamante wuñu woon mais la mënaguñ ñoo wax nag raison pour laquelle ñu def ko de manière précise parce que ñi ngi topp investigation bi ba légui d'accord d'accord donc amuñu ben lien euh, de prime abord voilà donc légui nak euh, defe il y' a une vingtaine de chefs d'inculpation euh ou chef d'accusation. Ti ti chef d' ka ci ci ci kaw xalé yi. Mm-hmm. effectivement inculpation yi bëri euh, donc bini ñu mujjee waxante juge bi tol na ci vingt trois waaye liñ leen liñ leen topé moo nekk loo crime bu gën audio ah audio maanaam bu fekkoon ni Colorado am na li ñuy wax des penalty mm-hmm. mooy condamné yoo xam ne boo ko defee dañ lay rey ñoom loolu lañ leen di teg mm-hmm. donc felony mm-hmm. F1 moom lañ leen daan mooy li nga xam ni moo gën a kawee ci crime bi nit ñi mën a def bo li ñuy bàyyi xel rek te war ci liggéey nag euh, ñoom ay mineur lañu euh, ay mineur lañu donc ñi ngi xool daan yi dañ leen koy teg comme des majeurs donc ñun ci loolu lañ tol donc nous ngi liggéey ak euh, district attorney mhm. liggéey avocat mhm. pour que ñoom dañ leen comme mhm. des adultes comme ça ñu teg leen daan yi nga xam ne moo gën ci yi doomu Colorado. est-ce que yow bien bien que ba léegi nag waxaguñu lu mais est-ce que yéen ragalu leen ne xale yi dañ leen a c'est-à-dire euh, y y a des gens qui ont commandité peut-être ce crime là des gens ou une personne qui a commandité ça Regardez les mu xaw a mel noonu. waaw ci ci rek mais encore pour insister sur le fait que. Mhm. Euh, euh, famille Diol bi xamantu ñi wax donc mhm. ñun li ñu gën euh, bien vrai que naqar bi metti na mais mhm. soulage ni ñu xam ni am confirmation ni jibi ak la famille nekku ñu won ci dara lu ñu warul nek d'accord. doxuñu woon ci dara lu ñu warul dox. Mm-hmm. xam nga doon na gën a metti bu fekkoon ne am na lien. Mm-hmm. nga gis ni ñu ah ñoom de ñu ngi doon dégg mais mm-hmm. y a lien. bon maintenant xel nag xel nag day dalay dalay may nga ni ah xale yu toll nii yu mën a def jéye bu toll nii. da ngay jàpp ni am na ñu war a nekk seen ginnaaw. mais ñun amaguñ ci confirmation amaguñ ci lu ñu leer. donc détective yi ñu ngi def seen investigation xam naa ni dootul yàgg dara nag. ñu indi ci ay leeral wax ñan ñoo nekk ci ginnaaw seen parents ndax xale yu mel nii bu ñu defee lii il y mois ñu làq ñu nekk seen kër seen parents yi war na xam war nañ ci xam dara donc yoon mi ngi topp pour xool ba xam seen parents yi xamoon nañ ci dara wala est-ce que dañ dañ leen a xamal di leen nëppal bu dee loolu la itam yoon yoon dina dal ci seen kaw D'accord. Ah, Masha'Allah. Euh, dernière question la communauté sénégalaise bi fofu ak fu mbir mi message mhm. mais pour pour signaler pour signaler hein, euh, les autorités de la ville de Denver euh, en l'occurrence même agent FBI mhm. le gouvernement du Sénégal parce que mhm. parce qu'il y' a beaucoup d'informations qui Google. Mm-hmm. et euh, d'habitude nag de fait le temps mm-hmm. donc le gouvernement du Sénégal à travers le consul général et l'agenda, a pris nañ ci lu information d'ailleurs même si tey a ci kanam réunion la communauté mm-hmm. en général dina détectives, détective agents agent FBI rek ñu donc la communauté dans l'État du Colorado est une communauté très soudée donc nous ñëpp ñu ngi nous Mati itam euh, leneen lu ma bëgg a leeral rek mooy parce que ca njalbeen ba mhm. nit ñi dañoo jàppoon ni affaire racisme la. waaw dañoo jàppoon ni affaire hate crime hate crime la. may dalal xelu mhm. sénégalais yi nekk Sénégal ak ñi nekk ci diaspora bi am nañ firnde. Mhm. ni lii du mbiru racisme du mbiru hate crime. d'accord te américain tubaab yi nekk ci dëkk bi. vraiment jàppale nañ ñu. vraiment soutenir nañ ñu. donc euh, li ñu doon dajale ci xaalis ñoom dugal nañ ci seen loxo. bi nit ñi nekkee fii américain tubaab yi tijji nañ seen kër yi nit ñi dugg fi. donc vraiment c'est une communauté très soudée. Mhm. bon ñun message bi ñuy jàllale rek mooy nit ñi ànd ak dal. Mhm. ñu bàyyi policiers ñu continuer seen liggéey. Mhm. ba ñu am ci li ñu gën a leer comme ça ñun lépp luñ ci xam dinañ ko indi leeral leen ko. mais pour le moment nag communauté bi ñu ngi jàppalante bu baax a baax continuer ci liggéey bi. macha allah macha allah jërëjëf Papa Dia xam naa dinañ rester en contact parce que bëgg nañ xam vraiment quel est le mobile de ce crime crapuleux merci beaucoup.

pour 50 ans hein, pour 50 ans euh, donc dinañu ko jël également donc il Amina ñom vraiment ils sont déçus ñom ñep ndax gens nañu gisuñu fa politiciens yi euh, wa opposition gisuñu leen fa est-ce que c'est parce que Boubacar Seye euh, politiqueul xamuñu xamuñu xamuñu xamuñu xamuñu lutax gisuñu fa nit ñi démb am na ils sont vraiment déçus parce que sont nañu way gisuñu fa qui fa kenn voilà kon sont, amna ñu une dizaine de personnes mais mënoon na gën a jàppale ki nga xamanteni ni daf doon xex pour diaspora bu Sénégal waaw ñu xaar dam bo mu duggu allo allo dam allo wa dam ma ngi lay ziar da maa ngi lay ziar. allo allo Mati. waaw maa lay ziar maa lay dégg. allo. allo Dame ñu ngi lay ñu ngi lay la Mati. waaw maa lay ziar. oui. ma naka yëngu ma bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi nous sommes en live ma nga ak mbokk yi internet yi. waaw euh, soxna Mati. maa ngi nuyu euh, internet yëpp. Euh, di leen euh, wax ni kontaan naa lool tey dugg sa live pour ñu waxtaanee mbirum réew mi euh, ak certainement beaucoup d' autres sujets yoo xam ni dina la intéressé yow comme ni ma la xamee ci sa xarañte <laughs> dinaa leen wax rek ni man lépp lu ma fi wax dinaa ko wax ci sama aqulaay taala mhm. pour mu leer rek ci bopp ñëpp par rapport ak question yi nga bëgg ñu soulever ko ensemble. waaw di la gërëm nag yow aussi quoi par rapport ak euh, liggéey bu rafet bi ngay def. Mm-hmm. nga xam ni da ngay aborder sujet yi am importance ci Sénégal surtout di ko jox diaspora yi di ko jox Sénégalais yi de manière générale. Mm-hmm. Euh, donc euh, ñëpp di teewlu sa sa waxtu. donc loolu am solo la parce que ñiy def live bëri nañ mais je sais bokk nga ci nga xam ne ñoom la sénégalais di gën a déglu. donc loolu nag c' parce que sa liggéey moo rafet. Uh-huh. merci et da ngay aborder sujets yi nga xam ne Sénégal rek moo la ñor quoi donc loolu moo tax vraiment maa ngi lay féliciter. Uh-huh. merci. Euh, ci liggéey bu rafet boobu ngay def di la euh, gërëmaat aussi ci tànn big ma tànn pour ma dugg ci sa biir live pour ñu waxtaan.

Mhm. Wow, donc ma doré doore kon Wow. Allô. waaw waaw mën nga doré fofu? Allô, Mati Wa ma lay dégg bu baax waaw jërëjëf donc wow, damay léral ñi wax ñi wax lolu que man dam bo secrétaire général du de syndicat la mhm. Jité ay kat yo xam ñi ngi bot sama ginau am ay jafe-jafe mu mhm. nga xam ne sama rôle moy défendre leen Serigne Mbaye Thiam nak nekatul ministre de l'éducation nationale mais daf ko jamono yam koy nekk effectivement man ak moom doon nañ laale mais c'est tout à fait normal ci ku xam lan mooy syndicat. syndicat mooy yow da ngay nekk pour di défendre ak ak yeleefu ñi bokk ci yow. ci sa secteur muy jàngalekat yépp ku ci am jafe-jafe. yow la ci yaakaar pour nga jàppale ko ci. kon nag man su ma nekkee ci loolu te ku xam ministre xam ne c'est des postes politiques. surtout ci jamonoy président ma Macky Sall nga xam ne moom poste yi séddalewu ko ci xam-xam da koo séddal rek ci ay jegeñaaleem wala ay calcul politique. ay calcul calcul même j'allais dire politicien mm-hmm. wa kon nak buñ ko joxé ministère mom muy def politique politicien mm-hmm. té man may rek carrière jàngale kat yi nga xamné ne seen ak seen i la yuni yun len amel mm-hmm. wala lo xam dañ ko déggo ak état suma ma ministre bo xamné day ñew di jalgati mënuma lu dul taxaw xex ak mom lo rek la def lay nak sénégal li problème bi da danoo tam par exemple euh, di mere ki nga xamné dafa fayu Euh, wala di ko joxoñ baaraamu tuuma bàyyi ki nga xam ne moom moo tooñ parce que ki fayu buñ ko tooñul woon du fayu kon man awma benn intérêt ci singli Serigne Mbaye Thiam moom fan parce que Serigne Mbaye Thiam benn problème ak moom léegi lu tax la ba ngay fayu xaw ma benn mbokk am xamul sama benn mbokk léegi lu tax mu tooñ la ba ngay fayu voilà tooñ ba ba ma fayu mooy damay déparé d'abord ci li nga xam ni moom mooy li nga xam ne ba mu nekkee ministre éducation nationale daf ko doon def mooy bu ñu demee ba xam si déggoon nañ ak nguur gi ci pàcc bi nga xam moom la war a doxal moom mu téye li nga xam ne moom ay ak yeleef jàngalekat yi yëm yore ci loxoom di jaay doole jàngalekat yi di leen won ni man ministre dictateur la faale wuma leen bu ko defee jàngalekat bu ci nekk xëy na bu ma ko bëggee détaillé dina métti mais li nga xam mooy seen ak ak seen yeleef te ku ne xam na ne loi bi moo tëral liggéeykatu nguur gi ku ci nekk li ci sa àq ak sa yelleef loolee nag lay téye mhm. di leen jaay doo leen ndax niveau de responsabilité bi mu nekk moom bu ko neexee mën naa bloqué ku ko neex mhm. lu ko neex mën na koo def salfaañe carrière u jàngalekat yi kooku xam nga tooñ la d'accord tooñ kooku nag su ma ko tooñee mhm. mooy tooñ na ko jàngalekat yi mënu ma dul taxaw xeex ak moom d'accord beneen tooñ bi nag mooy ministère éducation nationale dañ koy nattal ci budget état lim ko nattal sénégalais yi ñoo ko moom ci seen i ah, taxe ak seen i impôt lañ ko nattal loolu ñu ko nattal ni ko doxalal ministère éducation nationale mu jël alalu ministère bi di ko di ko di ko def ci poosam di ko di ko di ko pasar pasaree ah waaye ma man cee lim loo xam ni xaaral alal alal boobu mu di ko pasar pasaree di ko ko ci poosam mais yow ana preuve du tax nga wax loolu voilà ci loolu laa jëm ah. parce que man ñi ma xam ñëpp xam nañ ni ah. njàng mi du ma ci wax loo xam ne du ma duut baaraam bu loon loolu ba tey yu wasi nañ ma ndaxte ñoom yàqamte nañ leader boo xam ne def na erreur ban woo ko mais man ñëwuñ maa woo parce que lépp lu may wax dama ciy duut baaraam mati looloo tax ñemeeguñ maa woo parce que am na ñu koy wax Sénégal daal ni mais Dambou du tax yow ñoom ñemuñ laa woo te yu garaaw ngay wax man leen li may wax yu garaaw yooyu ñoom xam nañ ni maa ngi ay preuve maa tax duñ ma woo benn en 2014 rapportu ARMP mom mo tumal Serigne Mbaye cham daan ni na alalu askan bi amna ay marché yu jaarul yon yo xamne amna ci ministère bi bam ko waxe ma japp ni dañoo waroon jël dossier bobu jox ko ofnak mu saytu ko ñu jébal ko procureur de la république defuñu ko man dambo ma jël rapport bi jukki ci ay poñ yu bari yo xamne ay loubal yu leer nañ la yo xamne rapport ARMP bu 2014 moko wax ma jël ko yóbbu ko OFNAC porté ko plainte en avril 2019 mais ba sun jonne yalla tay kenn woowu ko kenn jox ko procureur te japp naa ne man yi dossier yi nga xamni mom la président de la république Macky Sall tek coom-coom bobu bokk na ci. ah boobu ma man len tay jox rek ñaari firnde. waaw ma man len tay jox rek ñaari firnde. waaw ben firnde bi mat. waaw moy lycée. Mariama Babu Gore. lu nit gàtt gàtt tànk Sénégal mas naa dem Gore dem euh, dem dem fa tourné dem gis lii si Mariama Babu Gore. dëgg la. presque ak kër gu mag la rek. dëgg la lam yore ci élèves matuñu cent élèves. ab lycée bu ndaw la. yaa ngi may dégg. waaw. mu jël moom Serigne Mbaye Thiam ci budget Sénégal. waaw. lu toll ci huit cent soixante huit millions du samay wax rapport ARMP la. waaw mu ne 868 millions la peinturé sëñ lycée Mariama Ba bu Gorée maanaam defaraat réhabilitation. maanaam réhabilitation mooy. bañ fa demee ñun vérifier dañoo gis ni changé quelques portes la fa def daal di koy peinturaat. c'est-à-dire que la fa def amul parce que foofu ay tuiles la ci ko waxam ay tuiles la tuiles ya sax kenn teggiwu ko. bâtiment bi ko amul benn mur bu mu toj. benn mur de façade de quelques mètres la fa def. daal di koy peinturaat.

ci ñetti région yu bokkul te salle bu am Mariama ba dina am ca lycée ba muy tabax est-ce que dégg wax ji. dégg naa ko dégg naa ko. est-ce que wax jooju. waaw dégg naa ko 800 millions te te te. waaw loolu lu leer la muy firnde boo xam ma nañ koo teg ci kaw taabal ji beneen. Mm-hmm. moom ministère éducation nationale bee tamit ca digg Dakar nga xam ne booba xamoon na ne ña ngi fay waaj a jóge mu gaawantu peinture ko. Mm-hmm. parce que booba ña fay waaj a pour dem jam ñaajo. Mm-hmm. à quelques mois. moo xam ne léegi ñu dem mu gaawantu peinture ko pour mën a lekk benn marché xam nga ñaata la ko peinturé. Ah. cent quatre millions peinture kese. te euh, ñi nekk ci wàllu peinture nee nañ boo jëlee quatre millions yi kese ëppoon na pour peinture ko waxantuma la ak cent quatre millions la ko peinturé beneen ba. am na ay añ yu bari. Ah. yoo xam ne lu mat juróom fukki nit ak juróom wala juróom benn fukki nit. Euh, ak ñett mhm. yoo xam ne dañuy defandoo ab añ di ay inspecteurs yoo xam ne dañoo nekk ci njàng mi mu woo leen Dakar pour ñu def séminaire añ kese mhm. benn añ ñu jox leen quinze millions loolu tamit meen ci rapport ARMP bi est-ce que dégg nga li ma la wax yow ku la woowoon tey di nga mën a génne ay preuve maa ngi rapport ARMP bu la neexee ma jox la ko d'accord d'accord kon yow tey fu ñu la woowee tey tey bu la alkaati yi woowoon tamit li nga wax da nga ca di mën a delluwaat mais dama ci wat parce que man sama rapport ARMP la yor. D'accord. D'accord. d' waaw donc. li ma la mën waxal moy Serigne Mbaye Thiam loolu bu ko waxalee ñu ne dama ko mais wu mako. Ñom ñoni rap procédure yu bari. yo xamné ay passation de marché. jaarul yoon. day dem jël marché bi jox ko gré à gré. Bal ma jox la benen Mati bal ma jox la benen. waaw jox ma benen balanya ñu baal ma jox la benen bala ñu dugg ci mbiru jaari so bi. waaw voilà benen bi beneen bi mooy nga jël ab entreprise boo xam si tabax ay classe mooy nëccim tabax ay classe maanaam xam nga ministère bi ku ci nekk daa am lu mu koy jox. waaw bu dee kii tabax ay école. ak ay classe xam nga kooku bâtiment la jàng. mu yore ay ouvrier di tabax nga si ñeen moom contrat xam nga loolu xel ma na koo nan. waaw mu jël koo xam ni. Mhm. sarsara const. construction la tudd ñëpp xam nañ ko Sénégal ay ay ay ay lay tabax mhm. doon na ko tabaxal moom ministère éducation nationale ay salle de classe mhm. ak ay école mhm. yaa may dégg waaw waaw moom sar sara construction moom nga xam ne BTP la moom moom ci batiment lay yëngatu Serigne Mbaye Thiam dem jox ko marché restauration d'accord pour mooy añal ay séminaire est-ce que loolu xel ma na koo nag d'accord d'accord ah lii doy na waa loolu du njublang waaw loolu doy na mais mais mais yow ah, nga wax mais yow yàgg nga di ko wax yu mel nii yàgg nga di ko wax. mais ba léegi waaw mais yaa ngi may dégg ma ne. man yàgg nga di ko di wax li nga di dénoncé. mais ba léegi kenn woowu la te nii également kenn waxul ci mbir mi. donc xel xel xel mun na tey même juba moom jubawam sax waroon na mun a porter plainte le ministre. ah oui parce que man lu may wax kay wax dëgg yàlla bi ma ko dalee wax ak léegi mi ngi bëgg a yàgg kon nag ñu naan dama koo singali. Mm-hmm. ak dama am problème ak Serigne Mbaye Thiam xamuñu li xew man amuñu benn problème mais Maty mhm. man su ma nekkee un leader d'opinion dans le secteur de l'éducation et de la formation est-ce que am naa droit yëg information yii ma fi wax ba noppi du ma ko wax est-ce que am naa ci droit. déedéet déedéet en tant que syndicaliste surtout sax déedéet. déedéet ah nañu waxante dëgg rek. dëgg la dëgg la. mi ngi mel ni tey jii ay jamono. Mhm. man faruma ak Ousmane Sonko bokkuma ci parti mais ay jamono bi ko nit ñi dee tuumaal naan na day dem assemblée day dem di andi ay affaire yoo xam ni du domaine am moo koy joxe man leen mais yéen ab député bu nekkee ci assemblée nationale nekkal fa askan mu yëg loo xam ne ab luubal la am ci biir assemblée nationale. loolu bu ko bu ci noppee est-ce que du nekk complice. mooy jamono jam fii yëkkatee ne député yi fay ñu ay impôt ak député yi li ñuy euh, vider seen oto yi dafa ëpp xaalis bi ñu ngi lekk du loolu la fi waxoon coow lu jóg. moom Ousmane Sonko da nga koo fàtte. dëgg la ah gars yi waxee du nit ñi dañ ñu woon am. daam daam gars yi ñëpp. du nit daam daam commentaire yi yi ñëpp nee nañ daam moytul Macky Sall dëkk bi amul justice daam moytul Macky Sall. waaw mais d' accord mais Mati. Mati xamalee problème bi mooy. affaire bi mooy. Euh, nit ñi il faut il faut aussi ñuy waxante dëgg gis nga Sénégal. tant que ñu ngi naan wax nañu ragal moytul man mii di wax ak yow bés bu nekk nit ñi ma moytul. mais moytul par rapport ak lu dul dëgg. mais man loo xam ne damay duut baaraam ci lu leer naa ñu xam nga man defaruma rapport ARMP. dëgg la la. yaa may dégg. waaw waaw. man defaruma ko nest dëgg la léegi nag daam ñu ñëw ci mbirum jaari euh, sow bi euh, mbirum jaari sow bi ci boppam laa bëggoon ñu ñëw parce que affirmation yi nga ci wax dafa xaw dafa dafa dafa grave parce que boo mhm. demee ba ci biir sax en yow en somme dafa dafa mel ne dañoo jël jaari sow di ko politique yi en fait voilà cest di dire que yow pour yow sëñ Mbaye Thiam effectivement waaw uh-huh. waaw loolu tamit mhm. loolu tamit mën naa am andi ay firnde yu leer nañ yu kenn dul werante maanaam xam nga en 2016 Mati. waaw. Mati. waaw waaw ma ne en 2016. waaw. en 2016 président Macky Sall dafa décidé ànd ko ak Serigne Mbaye Thiam ministre de l' éducation nationale booba. waaw. ñooñu dañuy créer benn lycée d' excellence tuddee ko le lycée d' excellence de Diourbel. waaw. yóbbu fa soixante élèves ay góor ak ay jigéen. Mhm. trente la ñu góor trente jigéen mais mujj ca mujjantal ba sax trente deux góor la ñu am ak vingt huit jigéen muy soixante élèves ñu sélectionné leen Sénégal ñu gën a xarañ ci Sénégal normalement waa léegi bi ñu ko defee noonu ñoom ci année boobu Serigne Mbaye Thiam comme mooy ministre de l'éducation li mu bëggoon mooy nu mu mën a def rek pour ñuy tudd le lycée d'excellence de Diourbel pour que mu wane ni moom loolu mu créé lu baax la et que am nay résultat rapidement ñu jël xaalis bu bari ñu def ko ci lycée d'excellence de Diourbel. yaa may dégg. waaw waaw waaw ñu ngi lay dégg bu baax. loolu amee. bi loolu amee en deux mille seize. deux mille seize deux mille dix sept. mooy année scolaire deux parce que ñoom ñoom jaari saw ñu ngi dem ñoom ñooy première génération lycée d'excellence de Diourbel. waaw. lañ fa def année scolaire 2016 2017 ci lañ def classe de seconde est-ce que yaa may dégg. waaw waaw waaw. bi ñu demee classe de seconde foofu bi ñuy dem sax gis nga match bi ñuy doog dem sax amuñu néeg yu ñu fanaan booba école bi pareegul booba école pareegul dañ leen doon yóbbu hôtel ñu fay de di di jàng si. Mm-hmm. Mm-hmm. état Sénégal def ci xaalis bu bari loolu lu baax la parce que man nee naa lii cette excellence dafa war a am ci région yëpp. parce que loolu baax la pour réew. Mm-hmm. parce que tax xale yi di ku ci nekk jëm ci école bi gën a baax loolu baax na. mais xam nga doon mbir mi. mooy Serigne Mbaye Thiam nu mu layeele woon ba école résultat loolu la bëggoon. bi mu gisee nag en seconde. mu présenté Jaari Sow Miss Mat Miss Science. mu jël ko remporté prix bi. ci la ne kon am naa am na am naa koo xam ne mën na am mën na maa sukkandiku ci moom pour pour euh, pour pour fësal école bi. ca la commencé. waaw waaw ñu ngi lay déglu. ca la commencé. di ko fësal. di may école bi doole. léegi nag bi ñu ba ci concours euh, général bi. ci concours général bi année suivante parce que seconde amul concours général. ñoom bi ñuy def première ci concours général. mu def ay pexe. mu def ay pexe. ak programme genre parce que éducation dafa am lu ñuy tuddee ay programme genre maanaam jigéen la ñuy bëgg mettre en avant de boo demee ministère éducation nationale direction yëpp ay jigéen ñoo ko occupé. à part direction des ressources humaines. ñuy xool nag nu ñuy def ba wut benn jigéen boo xam dañ koy présenter dans le monde comme la meilleure loolu moo tax ci concours général 2018 bi. boobu ñom en classe de première. jaari a am premier prix. ak ay accessit. ak ay un deuxième prix. mais premier prix benn la ci am mom jaari saw. ñu présenté comme la meilleure élève du concours général. alors que que classe classé un prix. alors que am na yeneen élève surtout ku mel ki nga ki nga xam ne moom moo doon meilleur élève bi mhm. nga xam mi ngi tuddoon Samba Xari Silla mi ngi woon lycée d'excellence de Diourbel moom Samba Xari Silla dafa amoon premier prix en mathématiques am mhm. mhm. premier premier prix am premier prix en mathématiques am premier prix en PC. mooy matière am ñoo gënoon a jafe am na mati toog nañu ay année yu bari. Mm. benn prix amul mathématique waxuma la ay premier prix deuxième prix de mais benn prix amul. benn ça c'est vrai. ndax xale yi dañoo am problème mathématique. ça c'est vrai est-ce que dégg nga li ma la wax. waaw ça c'est vrai. loolu waaw léegi nag ku toog ay année mati. Mm-hmm. amoo premier prix. amoo premier prix mathématique. Mhm. wala sax am année yoo xam si mathématique sax amul benn prix maa benn xale bu fël ba mhm. président de la république bi fi nekkoon sax Macky di kaas. Mhm. même Ablaye Wade bi mu avant mu fi jógee kaas na ko ni dañoo war a def ay effort pour mathématique bi ñu am prix yaa ngi may dégg. waaw waaw kon boo toogee ba ci yàgg benn xale jóge fële. benn xale jóge fële am 18 am premier prix mathématique daal am 18 am premier prix PC. boobu nekkul premier nekkul meilleur élève Sénégal. dëgg la kon moo ko waroon jël jamono. Samba Xari Sila ñu. moo ko waroon jël moom Samba Xari Sila. Mhm. Samba mooy meilleur élève bu Sénégal en deux mille dix huit. loolu man Damboj ku ma ci mere. baye boo nga mere ma ci. mais loolu mooy dëgg parce que man su ma xasee gis dëgg kenn mënu la tee ba ma ba du ma ko wax. est yaa ngi may dégg Mati. léegi nag kon ñu daal di jël jaari sow jiital ko. loolu waaw léegi nag ñu jël jaari sow daan ni moom moo raw. 2018 booba Serigne Mbaye Thiam mi ngi mi ngi politique ndaw si parce que booba li mu bëggoon. mooy mettre en avant le programme genre parce que programme genre bi ay bailleurs de fonds dañ ciy def seen xaalis. Ah. jigéen raw lañ bëgg bëgguñu góor raw est-ce que dégg nga. waaw waaw waaw dégg naa bu baax. programme genre boobu nga xam moo fi moo fi andi woon éducation sexuelle bi xam naa dañ ma laaj question boobu éducation sexuelle programme boobu. waaw foofu la ñuy jeexalee éducation sexuelle ñoom li ñu bëgg ci loolu lañ bëgg parce que seen xaalis bu bari lañ ciy def. donc bu jigéen génnee moom ci la ci la ministère de l'éducation di gën a mën a layalee programme yoo xam ne est-ce que nga. waaw waaw waaw. mais mat mat lii bu dul politique lan mooy politique. ok donc donc donc en fait loolu moo moo indi aussi jaari sa ba mu ñëwee. lii bu dul politique lan mooy politique. kon en fait loolu moo indi tamit jaari sa ba mu ñëwee fii Paris euh, ci ci ci école bi euh, moom ak ñoom Samba Samba xarit Samba xarit si la moom am problème. allo waaw man loolu moo loolu moo indi tey Samba hari léegi Naar Sow waaw waaw. léegi Samba Khary ak Diary Sow ñoo bokk actuellement lui le grand di jàng. exactement. Mhm. parce que parce que Sow. Mhm. xam nga Mati lan mooy problème bi ma expliqué la ko mu gaaw pour ñi pour sa internaute yi mën a comprendre. voilà parce que heure baa li am ci Sow ba mu daw. waaw. Sow. Mhm. Takena, élève bu takk mën na jang mais xamal ban profil la jaar so yore littéraire jaar so profil littéraire la yore ba nopi nek semi scientifique est-ce que comprendre nga li ma d'accord manam ni lul matière science ni ni lul ci ay mathématiques ay PC mais takkewu ci comme Samba Samba Xari Silla ak ñom déccé job amna ay élève yu melni ay ñom déccé job mhm. ak euh, euh Euh, ak ñoom dabaax kan. Mhm. ñooñu ay élèves lañ yoo xam ne ñoom moom a yem même chose mais xale yooyu dañ koo gën a xarañ ci matière scientifique yi est-ce comprendre léegi lan moo tax ba Louis le Grand. mais xale yooyu dañoo négligé. lu tax ba mu ñëwee lu tax ba ñëwee Louis le Grand jaari sow lu tax deuxième année bi mu am problème. alors que Mati déggatuma la. ma ne lu tax ma ne deuxième année bi deuxième année bi jaari sow am problème. Euh, euh, premier année ça s'est ça ça bien passé mais deuxième année avez un problème alors que Samba s'il a un problème. oui est-ce que le fait que deuxième année bi dañuy en fait bu que tu n'es pas scientifique day metti ci yow. voilà les ca la ñëw Mati loolu yow mën naa expliquer. ñu lay pour nous comprendre comment uh-huh. pour nous comprendre l'eau France dafa am ñetti école yu mag yu ñu de cla euh, école préparatoire école préparatoire ñaari at nga fay def. Mm-hmm. Mm-hmm. ñaari at nga fay def bu defoo bu dee defoo cinq demi. cinq demi mooy nga defaat une année comme jaari saw li ko nit ñi di na ko def maanaam bu ñàkkee ren. Mm-hmm. ñàkkul lépp parce que mën naa dellu te du tee dee def trois ans moroomam yi ñoom deux ans la ñuy def. dëgg la. école école préparatoire yu mag ñàkk la ci France am. ñett. benn bi mooy Louis le Grand moo ci gën a siiw mooy bi jaari saw nekk. waaw Louis le Grand la jaari saw nekk. nekk fa ak élève bu bu tudd Samba Xarit Sala mooy ki may wax ne moom moo waroon nekk meilleur élève concours général deux mille dix huit. ak beneen élève bu tudd ñett ñoo nekk lui le Grand. Famara Ndiaye. Samba Xarit Sala. jaari saw ñoom ñett ñoo nekk Louis le Grand est-ce que lool leer leer na. loolu leer na. waaw mu am yoo xam ne ña nga Henri IV Henri IV ñu ngi France. Mhm. Henri IV tamit beneen école la boo xam ne moog Louis le Grand ñoo tolloo dayoo. Mhm. ñetteelu école bi moom mooy le lycée du parc de Lyon boobu aussi eh, Sénégal am na fa ñeenti ndongo donc fukk lañ ñoom élèves yu xarañ yi tigi. Mhm. mooy ñi gën a xarañ ci fukk ak eh, ci juróom-benn fukki élèves yi nga xam si bourse d' excellence lañ am Sénégal. parce que bourse d' excellence yi soixante lañ Sénégal chaque léegi ren soixante yooyu dix ñoo ci dix ñoo ci dem ci ñetti école yooyu. Mhm. d' accord. est ce que yaa may dégg. ñu ngi lay dégg bu baax. yeneen cinquante yi ñoom lañ tas yeneen cinquante ñoom lañ tas ci yeneen yeneen école préparatoire yi. bokkul nag ak bourse université yi bourse université yi lool leneen la. d' accord mais d' excellence Sénégal soixante la ci am dix yi ñoo nekk ci ñetti école yi ma leen limal. Mhm. cinquante yi ñoo nekk. ci yenen euh, lycée préparatoire yi nga xam ñu ngi France mais ñet yi ñoo ëpp doole France. ok donc légui légui nak yenen ñaar ñi effectivement ak jaar ñom ñëpp jàll nak bi ñu jàllee. ñoom ñett ñëpp dañoo jàll olamé xam nga lu may jàll olamé dañu def première année bu baax. waaw bi ñu defee première année bu baax mais il faut nga comprendre ni mati école prépa deuxième année mo gëna metti ok mhm. ok ok. première année bi duñu leen brusquer première année bi duñ leen brusqué mais de de deuxième année bi moo gën a métti. léegi bi jaari saw jàllee première année moom ak Samba Khary Sylla ak Famara Ndiaye ci école Louis le Grand pour bañ a wax ci yeneen école yi pour nit ñi comprendre. waaw. ñoom ñett ñett bi ñu jàllee Louis le Grand première année ñu dem deuxième année. deuxième année en fonction de notes yi ngay am dañ lay yóbbu ci prépa simple wala prépa étoile. ñoom ñett ñëpp ñu ngi prépa étoile parce que ñoom ñett ñëpp a def première année bu baax est-ce que loolu leer na. loolu leer na problème c'est que deuxième année qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est important prépa simple deuxième année. prépa étoile deuxième année Nous avons prépa étoile parce que nous avons def nañ est-ce que vous mais mais mais mais mais damay ni mhm. ñeneen ñi ay mais ñee ñoo ëpp profil scientifique que moom même si bu fekkente ne xarañ na parce que moom moo leen gën a xarañ ci matière littéraire yi. Mhm. mais bu dee ci matière science yi gënu leen a xarañ est-ce que loolu tamit leer na. loolu leer na. Mhm. léegi nag bi première année bi jeexee. Mhm. Serigne Mbaye Thiam ci ay pexeem. ci ay pexeem. ñu dem encadré jaari sow parce que amoon na benn manuscrit bu mu yoroon mooy roman boobu ngeen doon dégg. waaw waaw. waaw ñu dem ni ko ni ko may ma rek mati pour mu leer ñu dem ni ko publier livre bi mu dem publier livre bi est-ce que dégg waaw naam ñi ngi doon wax ni li li papaam gaañu woon moo tax parce que deux mois avant papaam gaañu woon na. Mhm. à Mbour yaa may dégg. waaw. léegi ñu andiwaat ko Sénégal mom jaari pour me présenter livre boobu nga xam mom le publier ab roman la roman alors que yow yaa ngi élève science bo xamné ne ngi ci jafé jafé première année jëm deuxième année classe étoile pas pas n'importe quelle classe c'est-à-dire école prépa la nek. d'abord c'est difficile mais en classe étoile en deuxième année léegi moromam yépp ku xam lan mooy classe préparatoire amoo benn temps lekk sax da ngay da ngay limité heure yi lekk est-ce que dégg nga li dëgg la dëgg la même lekk bi sax dañ koy limité. Serigne Mbaye Thiam jël. voilà lekk yi da koy limité nelaw yi da koy limité waxtaan wi da koy limité lépp da nga koy limité parce que amoo temps. Mhm. tout temps ñu ngi ci pression lu ne ñu leen koy def loo lu ne ñu ngi leen koy jàngal di leen jox façon devoir yu jafe yu méttee méttee méttee tar. léegi nag mhm. moment bi xale yi di préparer deuxième année nga xam ñoom ñëpp kenn ñibbisiwul Sénégal ña nga toog di préparer deuxième année bi. nga xam ne moo gën a métti ci école préparatoire xam nga lu jaari saw def. Ah, wala luñ ko def loo. mooy dem Sénégal ñoom Serigne Mbaye Thiam métti ko mu mhm. ñëw Sénégal. Mhm. mu ñëw toog Sénégal lu ëpp weer. ci ko xam weer ci école préparatoire. mu toog weer ñëpp di jàng di préparer wu moom mu toog fii Sénégal. ñu koy wërale dëkkoo dëkk jox ab ab ab ab kat katam fu ne mu dem fa ñu koy présenté ci télé yi muy def émission. ñu koy wone muy def ay cérémonie de dédicace président Macky Sall di ko recevoir ku ne di ko recevoir mais Diary Sow a perdu du temps deug la est ce comprendre nga mati deug la deug la légui nak lolu bokku na ci jafé jafé yi nga xamné ah, ah, bimu dello am nako ba nopi comme ni ma la waxe ñe muy xëccol ñom ñoko profil scientifique est ce comprendre nga deug la deug la ba nopi ñoko upp temps bu nu jang ba nopi ñoko profil scientifique ba nopi ñoko upp temps bu nu jang té je rappelle école préparatoire yi. mais xale yi gën a xarañ presque ci ci Europe ñoo fay nekk. dëgg la da nga fay dem daje faak ay italien daje ay chinois. daje ay ay ay ay ay marocain. cest à ñi gën a ay seen réew ñëppay ñëw est-ce que comprendre nga. dëgg la dëgg la dëgg la. dëgg la kon daal moom en fait moom sous la coupe de de son parrain. Oh, ma euh, wax nag li tax. waaw ma dañoo dañoo xale bi. waaw xam nga tax ñu sacrifier ko. lu tax. bi loolu amee. Mhm. Mhm. allo. waa leer na leer na lu tax ñu sacrifié xale bi ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg ñu ngi dégg. waaw léegi nag moom. xam nga bu deuxième année bi ñoom bu nekkee ci deuxième année bi dafa am dele bu leen di jox pour ñu déposer les grands concours grand concours ban nga bëgg a def. Mhm, mhm, léegi ku ci nekk da ngay wax yan grand concours ngay inscrire pour def ko. est-ce que nga. waaw. waaw. grand concours yooyu yëpp c'est pour devenir des ingénieurs bu ñu demee trois ans lañ fay def. nek des ingénieurs wala ñu inscrire pour nek des professeurs d'université sortant de l'école normale supérieure de France. Mhm. wala ñu nek au niveau de euh, des grandes euh, entreprises de France donc ñom ay ponkal lañuy ñuy doon bu ñu génnee est-ce que comprendre nga li ma wax. waaw mais concours yoy ñu leen di présenter ku ci nekk boo présenter woo. Mhm. mën nga gis ko présenter wu te du jàll benn ci concours yi mu présenté wu moo tax moom foofu la ñuy wax dëgg dëgg foofu la dëgg di feeñe. d'accord. léegi nag jaari saw avec. oui c'est ça la pression sur Diary Sow Diary Sow pression boobu la Serigne Mbaye tag Mbaye Thiam teg ci kawam ba noppi moom dañ ko bëggoon a imposer pour mu def Paris X Paris moo gën a élevé seen école moom mooy école polytechnique moo gën a élevé ci concours yi nga ni ñoom xale yi ñu préparé euh, au niveau de ces trois écoles là moom la ñuy def parce que concours la bu méttee méttee méttee da ngay gis ñi koy jàll ñu ci ëpp ci ñoom seeni papa jàlloon nañ ko wala am nañ alal préparé leen depuis école élémentaire di leen waajal waajal waajal ba ba ñuy yegg parce que dafa saf lay na ah jaari euh, euh, sow moo la gën a xam ni li ko doon xaar lu méttee méttee métti la ak lu mën a am buñ ko bëggee présenté sénégalais ni dafa surmené uh-huh. bu dee surmené na mooy choisir loo wuñ ko filière bi nga xam moo noonu nekk à l'aise je rappelle Mati am na exemple joxe Sénégalais exemple le professeur Suleiman Bachir Diagne. waaw il avait le même profil que Diari le même profil que Jariso. Sow Souleymane Bachir Diagne. Mm-hmm. dafa un bac C. Mm-hmm. booba dañu wax série S bac C lañ daan wax. Mm-hmm. bac C. en sciences mais mu ay trop dans les matières littéraires mu dem suivre. mu dem prépa pourtant prépa la def de moom moom moom Souleymane Bassir Diagne prépa la def mais dafa def prépa littéraire. waaw waaw. tey moo ko may li mu am mu nekk une grande sommité universitaire dans le monde ñëpp di ko kañ ndax xam-xamam mais Diary Sow mënoon a def la même le même cursus. c'est ça c'est ça mais ñu imposer ko loo xam ni parewul ñu imposer ko loo xam ne ci ay politique politicienne lañ ko defee te Serigne Mbaye Thiam moo ko jiite lii mooy dëgg léegi nag suñu ma yow Serigne Mbaye Thiam da nga koo mais man suma ma li ma fi est-ce que ay par non déjà yo déjà syndicaliste tu es dans le dans dans le milieu de l'éducation dans le domaine de l'éducation donc vous lu lu lu lu la. mais aussi pour euh, pour terminer parce que heure bi connexion. li li jaar bi leer na waaw. allo waaw daam daam daam. waaw leer na. leer na nañ gars yi nee am nga mention mention spéci mention très lépp leer na. <laughs> lépp leer na. <laughs> waaw mais nuyul ma gars yi. <laughs> donc daal donc daal. jaaree waaw daal mooy dëgg gis nga ñu naan damaa contre Serigne Mbaye Thiam encore une fois nañ bàyyi wax boobu wax boobu amul sens. Uh-huh, uh-huh. waaw waaw lu noonu loolu aussi leer boobu amul sens waaw boobu aussi leer dernière question parce que heure bi dem nañu mooy mbirum éducation sexuelle waaw dernière question bi lan la mati lan dernière question bi lan nga bëgg ma wax ci mbirum éducation sexuelle bi nga xam ne moo yëngaloon euh, euh, Sénégal euh, ay quelques jours ci ci ginnaaw quelques semaines ba sax président wax n'ako. ko ci 31 mhm. décembre bi bëggoon na aussi nga ñëw ci bëggoon naa aussi nga ñëw allo allo yaa ngi dégg waaw jërëjëf Mati waaw waaw problème éducation sexuelle boobu uh-huh. Euh, man Dame Mbodj nekkuma woon ca séminaire ba ñu woote woon mais am na ay syndicat yuñ fa woowoon may rappelé ne parents d'élèves yi kenn woowu leen fa ñaari association parents d'élèves lañ am Sénégal la FENAPES et l'UNAPES ñaari association yépp kenn woowu leen fa loolu mat yaa ngi koy dégg maa ngi koy dégg yow man na mën nañoo soppi coppite yoo xam ne mhm. coppite yu rëy la ci njàng mi luñ ma sa def luñ ma sa def woo ñaari association parents d'élèves yi reconnaître au ministère de l' intérieur. Mhm. comme ni ñu reconnaître syndicat yi noonu ñu leen reconnaître. Mhm. ñu woote te kenn woowu leen loolu rek d' abord war na tey xelu Sénégalais yi. Mhm. beneen. mooy waxtaan woowu amoon le vingt et un vingt deux vingt trois décembre te defoon ko ca hôtel. Lamantin bit bu sali UNESCO woote ko moom ak ministère éducation nationale ak ay syndicats. yoo xam ne yaakaar nañ ne mën nañ leen a jàppale ca lañ bëggoon a def. ak ay organisation société civile yoo xam ne ay organisation franc maçonnique ñoo leen di financer loolu aussi maa ko wax samay wax la man Dame Mbodj Mati dafa am ay association yu nekk Sénégal yu tuddee seen bopp ay euh, ay ONG mhm. ay ONG yoo xam ne ay association ay organisation franc ñoom ñoo leen di financer ñoom ñoom ñoom ñoo nekkoon ca réunion ba yaa may dégg maa ngi lay bu baax bi mu ñëwee ñu ni léegi ñoom dañoo bëgg a valider contrairement ak le ministre bi wax. Mhm. te atelier boobu amoon à Saly ministre de l' nationale moo ko convoqué. Mhm. même bu dee day jéem a layal di ca jéem a génne boppam moom moo ko convoqué moom moo ko signé moom Mamadou Talla est ce que leer na. kon daal dafa am ay association ñoo nekk ci ginnaaw pour pour pour pour li ni mel pour mbirum seen ginnaaw yaa may dégg déglu rek. waaw ñu déglu rek ab lobby boobu ay lobby yu mag a nekk seen ginnaaw mais ki leen ngemb ñoom ñëpp mooy UNESCO. d' accord UNESCO nekk banque. ah defe naa defe naa réseau réseau bi daw na réseau bi daw na ma ne ko réseau bi daw na ah, dafa am problème de réseau Sénégal moom ak ak ak réseau bi moom mooy moom mooy loolu allo Dame Mbodj kon nag gars yi gis naa ne gars yi vraiment ñu ngi rafetlu vraiment ah, maanaam interview ak tamit Dame Mbodj xam nga nag c'est quelqu'un de passionné ah, ma ne ko c'est quelqu'un de passionné buy wax aussi xam nga day wax ak it ak mais pour résumer parce que problème donc dernière question dernière question après euh, après éducation sexuelle bi su ko defee ñu di ñëw ak euh, Texas ak it Ami Diop allo Allô, allo waa Dame allo na Mati. Wa ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu ñu jeexale ak éducation sexuelle bi Wa ñu jeexale ak éducation sexuelle bi. wa voilà. Mhm. Wa éducation sexuelle bobu mani. Wa. Ñom bi ko woté dafa am ab document boo am UNESCO moo ko defar ci àdduna bi tudde ko les principes directeurs internationaux sur l' éducation sexuelle complète noonu la document bi tudd c' est un document de cent soixante quatre pages jàllale nañ ko ci réew yu bari am na réew yu bari yoo xam ne accepté nañ ko ba pare te loolu lañ ca dëxañ mooy nan jàngal xale yi tout tànk juróomi at nu ñuy def ba bànneexu ci seen yaram ba noppi xale yooyu ñu ne leen góor jigéen bonul bu ngeen neexee yéen noonu ngeen amee awra góor ngeen ni yéen jigéen ngeen Mm-hmm. wala ngeen am awra jigéen ni yéen góor ngeen dem sëy ak seen moroomu góor wala seen moroomu jigéen loolu la document bi wax. waaw mais mais ba noppi ni leen. góor jigéen bonul accepté leen ko. parce que dañ ne ci àdduna bi ñu ngi boot di góor jigéen ñi te bëgg góor jigéen ñi am droit di góor jigéen. est-ce nga li ma la dégg naa ko dégg naa ko. loolu lañ wax ne moom lañ bëggoon dugal ci njàngum Sénégal. waaw mais gis nañ loolu wax ne moom lañ bëggoon dugal ci njàngum Sénégal. waaw gis nañ ne président Macky Sall ci. Euh, bañ ko defee. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw may ma a ñëw ca laay daaneele foofu laay daaneele fii ak trois minutes rek ma dagg. waaw d'accord. <laughs> léegi président Macky Sall bala may ñëw ci moom il faut ma expliquer ni la nekk ci mbir mi ba pare pour ñëw ci waxi président Macky Sall jooju ak lu ma ci xalaat. waaw. waaw léegi. donc bi mbir mi noonu. waaw. ñu daal di pare séminaire bi ñëw ne kenn déggu leen ñoom ña fa demoon man déwuma foon mais ña fa demoon kenn déggul coow am. Mhm. le 23 décembre le séminaire ba jeex kenn déggul coow Sénégal. la vingt quatre kenn déggul coow la vingt cinq kenn déggul coow la vingt six kenn déggul coow la vingt sept comme man jot naa document yan fa doon waxtaane ca la vingt six au soir ma xëy la vingt sept defar sama audio neuf minutes ñu bëri jot nañ audio neuf minutes dëgg la ma defar sama audio neuf minutes daa di koy reeteet sénégalais yëpp yëg ko sénégalais d'ici et d'ailleurs diaspora bi ñëpp jot document bi ñëpp commencé wax ne lii du am sunum réew mhm. coow li bari ku ne naan ànduma ci parce que suñuy doom tout temps kenn du leen jàngat yëfu caaxaan yooyu parce que ñu doom am suñuy aada am suñuy cosaan am suñuy diine am suñuy tarixa am suñuy mag ñu baax ñu bind ba fi kon kenn amul droit jàngale yëfu salte yooyu ci sunum réew du loolu la sénégalais yi wax dëgg la loolu la ñëpp wax ni ko sénégalais yi waxee le vingt sept mm-hmm. yow yow mii ak ñeneen a ñeneen ngeen def ci ay live ak lu nekk télé yi di ci wax rajo yi di ci wax ñëpp di ci wax coow bari mm-hmm. léegi ñu daan léegi 27 28 29 ba le 30 coow loolu moo amoon Sénégal. mais le 31 décembre comme président Macky Sall dafa waroon jàkkaarloog sénégalais yi. moo tax mënul woon a wax leneen. d'accord mu daal ni man dégg naa ne ab séminaire bu amoon la noonu rek waaye ñàkkal fayda wax ji. waa wax ji ñàkkawul noonu fayda mati. séminaire boobu amoon. 2020. waaw amoon na 2012. am na 2013 am na 2014 2014 ña ngi ko defee woon ca hôtel Radisson Blu bu Dakar. deux mille quinze bu ñu ne naa raw fan lañ ko defe woon deux mille seize deux mille dix sept deux mille dix huit dañ koo boole sa ab rapport Human Rights Watch bu doon tuumaal ay ay ay acteurs yu nekk Sénégal yoo xam dañ dañuy yegg ci xale yi ba noppi ne léegi xale yi na leen leen jàngal nu ñuy sëyee mooy lan diagnostiqué ak saafara yi bokkul ñu def ko deux mille dix neuf def ko deux mille vingt amul benn at boo xam ne waxtaane wuñ loolu ci Sénégal te président Macky Sall à travers le ministère de l' ñoom ñoo ko doon organiser loolu mooy dëgg. Mm-hmm. parce que ministère éducation yow gëm nga ne Maty lii ñeme nañu ko organiser te Macky Sall yëg ko yow gëm ko. ah doy na waar de. ma ko doy na waar yow ma ne ko doy na waar de doy na waar de. yow gëm nga loolu. ma ne ko doy na waar de doy na waar ministre éducation bi nag ñeme naa organiser atelier bu toll nii. Uh-huh. Uh-huh. doy na waar. yaa may dégg. maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg. waaw uh-huh. nag kon. mu ne moom loolu du fi mos a amee du lool la président Macky Sall wax. et puis da ngeen ci wax xam leen ci wax dan nañ jël seen xaalis du xaalis la wax dan nañ jël seen xaalis ñu dem. waaw waaw. kon xam nga ne xaalis am na ci mbir mi. waaw dafa mel président moon nañ jël seen xaalis ñu dem ñun wuñ ko du loolu la wax. waaw loolu la wax. wala waxul loolu déglu nga discours bi. waaw loolu loolu la wax. loolu président wax kenn loolu la wax maa ngi koy déggal maa ngi koy confirmer. waaw léegi mhm. léegi dañu leen jël seen clique ak seen i claque ñu abal ñu parce que loolu du am sunum réew parce que ñu am sunuy diine et cetera. waaw mais est euh, euh, léegi la gën a gaaw na ko moo tax ñun ñun yi moo tax ñun ànd sàmm ji koy fa laay daaneele. Mhm. ñu ne ñun li gën a gaaw. Mhm. du discours boo xam ne président Macky Sall ci wolof la ko wax wax ko ci français de ci wolof la loolu mu wax noonu ni nañ dem ñoom waa UNESCO ci wolof la ko wax wax ko ci français. d'accord. deux ans avant bi coow li amee. waa Human Rights Watch Serigne Mbaye Thiam ni leen da ñoo bëgg a imposer ñu dugal njàngum sëy ci sunu école te duñ ko nangu xam nga luñ ko waxoon luñ ko tontu woon. luñ ko tontu jour boobu dama rappelle bien j' étais l' invité de RFM matin de Babacar Fall. Mhm. Babacar ni man ne ko déglul daam ni leen. Mhm. bu fekkente ni Sénégal d' accord ci ñu dugal njàngum sëy ci école bi na ko Sénégal bind wax ne ñoom d' accord ci loolu rek la ñuy demandé ñun waa waa waa Human Rights est d'accord kon kon kon même président bu ko waxee ci olof déclaration bi il faut ñoom ñu ñu def ko ci papier ñu tënk ko ci ci papier ci français gu leer. allo waa ñu ngi lay dégg kon il faut Sénégal. mu wax ko ci français bu leer bind ko signé ko. moom président Macky Sall na ko bind signé ko ci ci turu Sénégal ñu ne Sénégal d'accorduñ ci l'introduction de l'éducation sexuelle complète mooy ay LGBT ay ay dugal ay ngóor jigéen sunum jàng ak dugal xale yi seen bopp ay mbirum sëy ak leen wan nañuy bànneexoo seen yaram maanaam def leen ay xale yoo xam ne ay caaxaankat lañ bala ñoo nekk mag maanaam loolu ñu ne d'accorduñ ci na ko bind bu ko bindee rek nee na mbir mi leer mais Sénégal bind ko ko mati beneen bi mooy uh-huh. am na kuréel gu taxaw gu tudd ànd sàmm jikko yi bu la neexee mën ngaa invité Euh, Abba Mboup mom moy président bi man mi ci la bok and sam jiko yi xam nga lan lan def actuellement dans le Sénégal. waaw. Ababakar Mboub, mi ngi def une tournée nationale pour rencontrer tous les chefs religieux les guides religieux les leaders d'opinion pour que ñu ñu lancer pétition nationale pour demander à l'Assemblée nationale de voter une loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. La loi bobu lañ bëgg a ci kaw euh, président de l'Assemblée nationale, après avoir fait, fait, signer une pétition à l'échelle nationale et dans la diaspora. D'ailleurs, Nelson Interno dit, la diaspora, nous avons pétition bi dina ñëw ci ñoom incha allah ñoom ñëpp ko signé. incha allah bu ko defee ñu boole ko yi nekk fii Sénégal ñu dem ko ci table président assemblée nationale ne ko léegi nag bëgg ñu voter loi

ok Mati maa ngi nuyu yëpp. merci beaucoup kontaan nañ bu baax merci beaucoup jërëjëf daal merci. <laughs> voilà donc mu doon Dame Mbodj euh, gars yi gis na ne kontaan ngeen lool ci Dame Mbodj euh, gars yi ñëpp nee nañ Dame Mbodj mbaa duñ ko jëli mba duñ ko jëli euh, ce qu'il dit sur les bourses sur jari et les préparations des mensonges waa APR nak Paris ñi ngi woté mais may leen ma jël euh juste rek wa Texas jël également yaay yaay Ami Diop également pour affaire pour mbirum Boubacar Seye jël aussi wa Texas wa États-Unis ndax amna Sénégalais bo xamné après dina naa le le consul ba nek fofu donc El Hadj Ndaw pour ñu jappalé vraiment aussi sénégalais binimel. mel il est libérable mun na am libération conditionnelle à partir de 2028 allo yaay Ami. Oui, salam alaikum. ngi lay ziar lay ziar Ami tey 5 minutes rek après ñu jundaa dem Amérique mais mënuñu ne l'avons pas jël. D'accord, d'accord, d'accord, systématique. Oui, kon maa ngi nuyu ñuy déglu di remercier yow tam sa liggéey rafet ci affaire merci beaucoup mais Demba c'est vrai que y a le Covid et puis euh, nit ñi. ñenn ñi xamna naa dañu ragal rassemblement yi. té xam nga depuis mois de mars nit ñi même réunion yi parti defatu ko. mais j'étais un peu déçu quand même. on n'était pas une dizaine mais. à peu près une trentaine de personnes. et puis euh, li ma ci xawa réconforter tout tuuti rek. mooy am ñu melni ay Seybani sugu fa tout ça. mais un peu déçu par les politiques ak beaucoup de activistes yo xam ne ñu ngi woon euh, euh, ne ñoom vraiment ils seront là. Mhm. et puis finalement euh, voilà quoi gisuñu là donc mhm. euh, ma am toute déception. c'est ça nag yaakaar peut-être. Mhm. peut-être que Boubacar Seye c'est parce que deful politique. loolu moo tax peut-être ñew ñu won ça les intéressait pas. mais may wax rek né affaire bobu ku nekk le mën a dal. et puis sa situation sa terre naa a nit ñi. Mhm. waroon nañu né voilà c'est passé le Covid dañu ragal ñu contaminé mais non je suis désolée. Mhm. gestes yi on avait respecté ça ñu tok seen kër yi té ñom ñoo gëna mëna nek biir Facebook. Mhm. di ci bëgg dal. franchement problème diaspora war nañ ko mëna régler. même pas nit ñi and nek ben ça ça va être très très difficile. ñu mëna a avancer. à quoi man man déception bu rëy laa moi à Paris il y a y a des manifestations français ils ont ngi def manifestations et tout euh, sans problème gars ils ont ngi manifester donc euh, voilà donc euh, mi ngi non dal gars yi ku ci a une continuité de dem di liggéeyi fi y a des y a des employés tir métro il y a il y a du monde donc je suis désolée mais le mot bëgg rek ñu ñëw comme waaw

tout le monde sera là Nous sommes là. mais hier ils étaient là quand même. Mhm. majorité bi boo Ce c'est pas parce que je les défends. Mhm. mais nous euh, ils ont envoyé quelques personnes. Mhm. mais euh, PDS voilà ils sont venus en retard peut-être à kenn nit moo fa nekkoon ku leen ma xalaat vraiment combat tout le monde doit être là Nous ne on les compte pas pour que nous nañ ne mu ngi ak Macky Sall. mais quand même euh, vraiment vraiment vraiment Macky war nañu seetaat suñu bop quoi ni ñuy ni ñuy ci bi diaspora bi. parce que li moy tax Macky Sall dem ah. c'est clair net et précis je pense que c'est la même chose. Mm-hmm. qui se passe au Sénégal. réseaux sociaux yi boy remarqué bi mu amé ba légui mm-hmm. les gens ils mènent le combat au niveau des réseaux sociaux pas ailleurs. pas ailleurs. doy na de te loolu vraiment bu continuer Macky Sall dina fi togat. dina fi toogaat mm-hmm. parce que ça sert absolument à rien mm-hmm. de créer plein de choses yoo xam ne mm-hmm. yow booy ñëw yow kenn yaay ñëw yaa jiite affaire bi mais booy ñëw tu viens tout seul doo indi mbooloo doo indi kenn daal doy na waar en tout cas ñu ngi leen voilà bu whatsapp yeeg facebook yi daal Macky Sall fi jógee deux mille vingt quatre dina fi toogaat de incha allah dina fi toogaat doy na waar en tout cas ñu ngi di déplore pas te def ça. Mm-hmm. et puis gouvernement tey mu ngi nii feebar ba bëgg a dee. loolu waral la tax nit ñi am un peu d'humanisme. Mm-hmm. ñëw toog mm-hmm. ñëpp nekk ñëpp nekk personne à risque Sénégal ñëpp feebar. mais argument yi yi njëriñ ñi joxe ni woy xam nga ñun comme à risque mënuñoo dem mais xoolal tubaab yi démb. c'est ça xoolal nit ñi tollu démb. c'est ça kenn xamul nit ñi tollu démb. mais pourquoi nous on peut pas comme eux. c'est ça bop sa ça ay nit ah. en tout cas. Euh, gars yi ñu leen di féliciter ñi ngi féliciter vraiment yeen ñi euh, vraiment euh, sur le terrain de manifester pour la libération de Boubacar Karsé et que je rappelle aussi may aussi le journaliste Mayassine Diop aussi bayna ci vraiment son na ci nek fele Bordeaux et toute sa famille ñu ngi koy également aussi di xamal Boubacar il est malade yobu nañ ko pavillon spécial donc. gars je uh-huh. li quelques personnes quand même. voilà journaliste hier nag ñëpp ñëwoon journaliste yi nekk France mhm. ñoom ñëpp ñëwoon démb mhm. amul kenn ku raté mhm. Seybani Sougou bis Ibrahima Thiam ben Ben Jeloun mais journaliste yi ñëpp ñëwoon complet tout le monde la mais Sénégalais préféré rester chez parce que dodoon taw te dafa seddoon te ñu ne virus baa ngi fa alors en plein air tubaab bi ni ñu toll bi ñu génnee doy na waar voilà doy na waar en ñu lay gërëm di merci merci merci beaucoup merci voilà donc gars nous euh, ñu jël euh, euh, également ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fële ca Texas ma bëgg ngeen déglu vraiment témoignage bi su ngeen aussi ngeen partager ko bu baax parce que c'est un jeune bien que bon

50 ans ndax vol de voiture ak agression ñu les lay ziar. waaw D'accord, soxna Mati. vraiment ma ngi lay remercier ci invitation bi. ba pare euh, di la encourager di rafetlu bi merci beaucoup effectivement Ousmane Sarr. Ousmane Sarr suma xarit la quoi. Mhm. donc euh, man xam depuis très longtemps. Mhm. donc euh, moom il est né en 1977. Mhm. après New États-Unis en 1999. Mhm. Mhm. Donc après cela, nous est au niveau de Texas vers les années 2001. Donc nous avons après commencé à avoir des problèmes là. Donc finalement en 2003, il été condamné à 50 ans de prison quoi. Donc, moom il est en prison depuis 2003 ba léegi Ousmane Sarr est en prison. Mhm, mhm. ñu ñu fàttali nag famille bu baax la bokk fële ca Sénégal dafa ñëwoon pour nekk étudiant pour jàng euh, waaye bon les faits fekk ko ci ñuy encore du soññ aussi xale yi bu ñëwee bitim aussi ñu def très très très très très très attention ndax fii du Sénégal c'est chacun pour soi. donc yow lan ban message moom ngay jàllale mooy bu boo so boo autorité consulaire yi ñu gën koo jàppale. Mhm. allo allo. waaw merci waaw effectivement effectivement li nga wax yëpp dëgg la. Mhm. donc moom cas bi muy ñëw fi États-Unis boobu xale la woon quoi. Mhm, mhm. donc boo xoolee quatre-vingt-dix-neuf fi ñëw donc il avait à peine vingt deux ans. donc euh, et puis cas dafa nekk cas boo xam ne dafa yàgg trop parce que même Ablaye Wade président Ablaye Wade dugal na si loxoom. avec, euh, mm-hmm. avec euh, le conseil avant bu nekkoon Youssouf Fandiaye ak ak ak l' avocat Pape Dieye l' sénégalais. Mm-hmm. ñoom liggéey nañ si mais affaire dafa xaw a dëgër daal donc ba léegi mm-hmm. dara sottiwul. consul bi elan Hadj Ndao ko quoi mom aussi maîtriser nako donc parce que ñëw na fi ñu yóbbu ko fofu mu setti Ousmane quoi. te gëm naa ni mom parce que liguey bu muy def fi am na solo trop. gëm naa ni mom mi ngi si mi ngi donc mom aussi ñu koy remercier. amna aussi keneen ko xamni ne na si wax ku ñu wax Pape Diop.

donc cas pour pour ñu pour ñu mhm. il faut que mu am lu bees mhm. lu bees moo mën a tax ñu ibbi cas mhm. te il faut nga jël avocat benn investigateur boo xam dina dina xoolaat dossier bi yëpp toppaat ko jéem a xool ndax lu parce que Ousmane moom lu muy wax mooy que ni par exemple jury bi ko tëjoon parce que unis juge le juge du tëj jury bi mooy tëj jury ñëpp douze personnes yooyu ñoom ñëpp ay nit yu weex lañ woon daal. donc loolu rek déjà bon warul waruloo loolu rek du yoon daal normalement waroon na am ay ay noir si biir daal. donc léegi fu mu nekk daal li ñu bëgg mooy. ibbi mhm. lañ ko benn GoFundMe boo xam ni. Mhm. pour que Sénégalais bu ko bëgg a jàppale. Mhm. mën nga si boo amee sa atout mën nga ko si dugal léegi ñu jéem a xool naka la ñuy defee levée de fond mhm. boo xam ne dinañu permettre pour ñu jël avocat comme ça mu xoolaat dossier Ousmane daal bu mu nekk daal loolu lañu bëgg ku ko mun a ñaanal aussi na nga ko ñaanal loolu aussi soxla na ko mhm. Sénégal bu ko bëgg a bind mhm. boo demee si GoFundMe bi adresse am mi ngi foofu mën nga ko bind supporter ko daal parce que yooyu yëpp moom soxla na ko daal waaw inchallah mais vraiment il est il est un peu fatigué parce que nekk en prison depuis dix-huit ans vraiment metti na trop daal merci beaucoup xam naa ñun dinañ jokkoo sa ak ak consul bi après inshallah Rabbi. nga jox ma aussi gis naa ne yónnee nga ma lien GoFundMe bi dinañ ko pour que nous mun am avocat bu baax également yeneen investigation pour ñu am élément bu base pour ñu mun dossier mais en tout cas merci beaucoup Bamba ndax yow ci sa aussi gis naa ne yaa ngi ciy yaa ngi ciy béy sa waat bu baax ah comme suñu mbokk Sénégalais la ñu lu war mhm moy ñu ñu jéem jappalé jàppale quoi loolu lañu dara comme sa famille mi nga au Sénégal. Mhm. ses parents sont en train de souffrir donc ñu luñu mëna def rek supporter bobu lañu mëna mun am mooy dem diko séti mhm. parce que man je suis en contact direct avec lui. Mhm. damay dem prison diko séti je parle avec lui près tous les jours lu lepp lu may def rek. jëluma initiative ci dara lepp lu may def rek Ousmane moo ma def ko même live bi may defal yow ni dem on en a parlé mun na ma c'est bon mun nga dem nga wax ci dal donc loolu parents parent bu ñu koy yone xaalis si man lañ koy koy jaarale. moom bu amee ay droit yu muy kaas. man maa ko koy kaasal fi aux états parce que yàgg naa fi je suis là depuis vingt huit ans. donc xaw naa naan système bi tuuti. bien mhm. bien que duma avocat. Mhm. donc euh, mais am na yoo xam ne war naa ko mun jóg d'accord ko donc di profité aussi di remercier Papa Dieye mhm. un avocat sénégalais bu nekk Houston à Suzanne mhm. ñoom vraiment léegi def na ñu ngi ñu ngi seen waar daal si mbirum Ousmane aussi quoi c'est ça en tout cas ñu les lay de la la euh, aussi di soññ encore consul vraiment bu munee jël contact ak it euh, ak it ak pour que ñu mun a gën a jàppale ki nga nous ne Ousmane Sar. di wax aussi sa famille du courage et que j'espère que euh, dinañu mun a euh, ubbiwaat dossier bi pour nous voir ndax est-ce que nous ko mun a gaaw a en 2028 normalement moom la war euh, liberté conditionnelle bu ko am jox nañ merci beaucoup Bamba merci beaucoup. Hum, hum d'accord Mati merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bu merci voilà donc gars yi euh, defe naa euh, live bi moom Dame tot na live bi gars yi Dame boit tot na live bi Qu'on kon que euh, mention spéciale mention très bien Dame boit. gars yi aussi nee nañ Dame boit. defal attention ci Macky Sall gis ci commentaire yi en tout cas donc maa ngi remercier suñu invité Dame boit di syndicaliste di remercier également ñoom Papa Dia fële ca Denver euh, Amérique ak ñi nga xam communauté sénégalaise Vous fa nekk également di def le tout pour que la famille Ndiol bi nga dañ euh, pour que mbir mi euh, également ñi nga de def également ñu mën leen aussi euh, remercier également euh, ki nga xamante aussi moom ñom yaay Ami job également euh bu baaxa baaxa baax ñi di jàppale euh, Boubacar euh, Boubacar Sey di aussi jaajëfal aussi wa Brésil ndeysaan dem nañ sur le terrain manifester pour que Ibrahima Amar kiko ko faat également ñu yoon mun ko tek loxo. leen di rappeler également que ni wa Russie son nañ lool bëggon nañ leen jàppale jël leen ci live bi mais woote wuñu kon nak wa Russie ñi ngi demander commission dem fofu ca fofu ca ca Russie ngir ñu mun leen defal la ci également seen passeport dañu bëggu ñu régler régulariser également euh, seen i seen situation ñen ñi dañu wara marié wu té mënuñ fexé ba am sax ay euh, ba am euh, document manam passeport kon nak gaay yi maa ngi leen di gërëm di leen sant ñom Cheikh ñom Eva ah xaw ma ndax dinaa leen kii itu maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a ba di leen di remercier yi ñi fi nek la team Moustapha Babou waa service d'hygiène ah de remercier ñoom Ndeye Maguette ah ci pil bi rafet bi ñom ñom ñom ñom ñom ñoom euh, euh, ki Mohamed Ndiaye Mohamed Ndiaye donc euh, di ko remercier lu bu baax a baax le cordon bleu ak it soxna madame madame Ndiaye di leen di remercier bu baax a baax gars yi ñep maa ngi di remercier Moustapha Babou aw Moustapha yi ñom yaay Ami Diop toute la team Arona Niang Viviane Safi Aminata belami di leen di remercier bu baax a baax ak ñom professeur Célestino maa ngi lay xol léegi-léegi na la wo jaajëf gars yi jàmm ak jàmm bon début de semaine di am le live sur YouTube légui légui Inshallah. le même live dinañ ko dougal ci YouTube également donc rendez-vous YouTube Matifal 3 pommes ciao ciao.